yonent bi sallallahu alayhi wa mooy borom su ko defee nu yeesal sunu cant jëme ko ci yàlla moom mi nga xam ni moo nu may nu fekke ko waaye moom mi nga xam ni aussi moo nu may nu tal ko yeesal sunu ziyaara ci ki nga xam ni amuñu ku dul moom te mu di Sayyidi Ahmad am lu ko yàlla dénk te mooy lanoo tuddee mission universelle waaye yàlla wax ko ni wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin mel ni yonent bi li ko tax ñëw ci àdduna mooy sauver xeet wi waaye mu mel ni itam sauver xeet wi dafa am la muy àndal te mooy dafay ànd ak yàlla jox la loo xam ni dana mën a dugg ci seen rox waaye seen xol it mën ko nangu moo tax yàlla jël alxuraan yàlla jël alxuraan ak li mu ci def lépp ci wàllu lumière ak li mu ci def lépp ci wàllu pouvoir spirituel et mystique mu wàcc ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam yàlla dogal yonent bi àttan ko ndax yàlla moo ko ko àttanloo su ko defee it yonent bi jàllale message bi yàlla wax ni law anzalna haza alqurana ala jabalin la raaytuhu xaashian mutashaddian min xashiyatillah loolu boo ko déggee rek dana tax nga xam ni message u alquranul karim du message bu tuuti soo nga defee moom la yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag mu am ci lu ko yàlla jaarale lu ko yàlla jaarale te mooy mu fexe ba yàlla dajale ci moom ñaar liy dellu ca na ni jàngale jullit bi dundam ci bu nekkee ci àdduna ak liy dellu ca na ni tarbiya rox ba mu mën dëkk ak borom looloo tax nu wax ni le prophète Mohammed ou la philosophie spirituelle ndax yonent bi xam naa ñi koy séentu ñépp dañ koy séentoo rekk jagle yàlla bi yàlla def ci moom waaw laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil muminina raufun rahim su ko defee ñi koy séentu ñépp di ko séentoo jagle bi boroom bi def ci moom waaye fekk na it am na loo xam ni moo ànd ak jagle bi te mooy éducation spirituelle ba nga xam ni ca xëy ba la ko jël ndax kenn réerewul juddoom waaw kenn réerewul juddoom moom yonent bi su ko defee ba mu juddoo it la mu fi fekkoon keneen ku dul woon moom mënul dindi loolu ci lëndëm ndax boobu fekk na àddunaa ngi lëndëm waaye rawatina itam dëkk ba mu juddoo te mu di màkk waaw yàlla dogal comme yar nañ ko démb tey soog ay dikk yàlla def lenn ci moom te mooy mu mën a wax ak ñi nga xam ni nangu nañu ni yàlla mooy seen borom waaw mu mën a wax ak ñoom waaw su ko defee yàlla ni ko message bi nga xam ni def naa ko ci sa dënn wax nga jàllale ko waaw mu ni ko message bi dafa am ñu ko moom waaye mu ni ko message bi li ci ëpp solo mooy nga fexe ba ñu ko moom dégg ko waaw li ci des nag mooy suñu ko jëfee ak suñ ko jëfewul kooku yàlla ni ko sama mbir la waaw waaye mu ni ko nag na nga fexe ba ñu ko moom nag nañ ko dégg waaw fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin waaw mu ni ko message bi ñu ko moom nañ ci jot te nañ ko dégg li ci des nag ndax daañ ko jëfee duñ ko jëfe yàlla ni ko sama mbir la waaw ci noonu la yonent bi débuté mission ci kaw suuf waaw waaye yàlla boole kaak ñoo xam ni xam nañu luy mission yàlla boolekaak ñoo xam ni xam nañu luy mission ak nu ñuy àndee ci mission waaw moo taxoon nu nangu def sacrifice parce que boo xamul luy mission doo nangu def sacrifice waaw ah. lil fuqara il muhajirin alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaika humu saadiqun waaw ah. ñooñu nangu woon nañu xam mission nañ cay ànde waaw nangu def sacrifice waaw ànd ak bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi it ci ay jukkoom mu nekk ku neex a àndal waaw ci ay jukkoom ndax looy chercher boo ñëwee ci moom dangay fekk ni bu dee qualité yonent bi moo la ko ëppale waaw looy chercher rek boo ñëwee ci moom bu dee qualité dangay yëg ni yonent bi moo la ko ëppale waaw moo tax borom bi ni ko wa innaka la ala xuluqin azim su ko defee borom bi ni ko qualité yi rafet yépp te baax sa bos moo ma ci gënal mu ni ko qualité yi rafet yépp te baax sa bos moo ci gënal waaw yonent bi ànd ak ña ko yàlla booleel waaw waaye mu wax leen ni message bi benn message kese la waaw te message bi mooy nu fexe ba li nga xam ni sama nawle yonent yi jiitu woon ci wàllu shahaada waxoon nañ ko nun nu dëggal ko ndax message yu islam message bu clair la waaw wa ma umiru ila li yaabudullaha muxlisina lahu diina hunafa wa yuqimu salaata wa yutu zakata wa zalika diinul te yàlla teg na ci ni inna diina indallahi l kon su ko defee yonent bi ni sama nawle yi jiitu lañu waxoon te mooy kenn ku nekk ci ñoom fexe na ba dégage responsabiliteem ndax wax na la taxoon yàlla indi ko ci kaw suuf te mooy ñu kennal ko moom borom bi waaw duñ ko bokkaale kenn waaye ñu fexe itam ba condition yi borom bi wax ni ki muy gërëm ëllëg ci condition yooyu lay tegu ñoom ñu tegu ci condition yooyu waaw mooy message bu yonent bi njëkk jàngale ndax wax na leen ni bu leen ma xoole rek Muhammad ibnu Abdallah waaw da ngeen may xoole Muhammadu Rasulullah waaw su ko defee ngeen mën a jëriñu waaye mu ni su ngeen ma xoolee nag Muhammad mii doomu Abdallah la woon fii la juddoo fii la yaroo nun xam nañu ko nangam nangam mu ni du ngeen jëriñu waaw mu ni pour ngeen jëriñu faw ngeen nangu ni yàlla moo ma yónni loolu la yonent bi wax waaw waaw te wax na dëgg waaw te wax na dëgg ndax dafa am lu may fàttali toujours muy côté boo xam ni yàlla def ci insisté waaw xul innama anna basharun mislukum yuha ilayya waaw annama ilahukumu ilahun wahid waaw côté boobu dama koy fàttali ndax yàlla def ci insisté yàlla nee na ma yónni ko moom yonent bi taxul ngeen defe ni dafay dépasser leneen lanoo mën a tuddee un être humain moo tax mën nañ ko misaal ak yéen ci bindin waaye mënul yam ak yéen waaw ndax am na lu ñu ko dee te deewunu leen ko waaw am na lu nu cof ci wàllu nubuwa def ko ci moom te defuñu ko ci yéen waaw yuuxaa ilayya annama ilaahukumu ilaahun waahid waaw su ko defee nag lanoo tuddee wàllu prophétie di nubuwa dafa am fu mu jóge ndax gis nga yàlla dafa am côté boo xam ni xëjalu ci mbindeef waaw mooy côté nekkam yàlla kooku mbindeef xëju ci waaw soo demee ci uluhiyaat yi dinañ la diviser ñett yoo xam ni benn bu ca nekk am na lu mu lay jàngal ndax bu ñu la waxee uluhiyaat rek yam ca uli uluhiyatu zaati waaw dafa am lu ñu lay jàngal te mooy yàlla ak lanoo tuddee divinité absolue waaw waaye du tee nag ci ay la nga xam ni yàlla cof na ko ci lumière am barkeel ko moo dem ba indi lañoo tuddee uluhiyatul jamal waaye moo indi lañoo ñoo tuddee uluhiyatul nawsan waaye gis nga côté uluhiyatu zaati yi muy la ñoo tuddee divinité absolue ña ñoo tuddee philosophe fii ci àdduna ñu bare moo leen sànk waaw ndax dañuy jéem a gëstu ni fi yàlla nekke waaw te loolu ëpp na xel waaw kooku xel du ko trouver mukk ndax xelu doomu aadama dafa am limite waaw xelu doomu aadama dafa am limite waaw te yàlla li muy naw naw doomu aadama bu am xel yépp ba mu koy bind dafa bàyyi ba génn cadre uluhiyaatam soo koy bind xel waaw moo tax xel mënul jàpp uluhiyaat waaw li yàlla di naw doomu aadama yépp bu fekkente ni boroom xel waaw ndax dem na ba laaj ni ndax ñi am xel ak ñi nga xam ne amuñu xel kan moo ci tane yonent bi tont ko it boroom xel moo koy moo koy tontu waaw nag yàlla boroom xel la tànn waaw mooy ñi xam ak ñi xamul waaw xam ak ñi xamul yàlla laaj ndax ñoo yam waaw yonent bi ni kooku buñ koy tontu boroom xel yi ñoo koy tontu waaw mu ni moo tax yàlla boroom xel yi. daf leen di jël toujours comme témoin ci message yi nga xam ni ay message la waaw waaye gis nga lim leen di jël comme témoin yépp teewul dafa bàyyi ba cadre uluhiyatu zaati mu dépassé ko mu soog a bind xel waaw looloo tax ñay faral di réfléchir di gëstu naan kañ la fi nekk di gëstu naan nan la fi nekke waaw léeg-léeg gëstu di gëstu ba seen science su bopp sànk leen waaw waaw parce que xel la ni utiliser te am na lu xel mënul ëmb waaw looloo tax nag côté la ñoo tuddee divinité absolue yàlla def ci wéet waaw yàlla def ci wéet li muy wax yépp jamono ju nekk na yonent bi digal ñi topp ci gannaawam te déglu message universel bi li muy soññ yonent bi ni ko wax leen toujours ni bëgguma ku ma bokkaale inna allaha la yaxfiru an yushrika bihi waaw li muy insiste yépp naan ko bëgguma ku ma bokkaale dafay bañ rek ku dugg ci cadre divinité absolue waaw ndax kooku moom dong la kooku moom dong la waaw kooku mooy existe kooku bu lépp demee itam ba jeex tàkk loolu moo fi des waaw kullu shay'in xaalikun ila wajha kooku bu lépp jeexee ba effacé ko moo fi des waaw mooy divinité absolue xel du ko jàpp waaw xel du ko jàpp mukk moo tax ñi koy imaginer yépp seen imagination bu delluwul ci jël course zikr pour am ci yëg-yëg boo moytuwul seen imagination sànk leen waaw te ñi ci dem ba wax ni yàlla amul seen imagination moo leen sànk waaw ndax imagination ci xel lay jóge waaw boo bëggee yóbbu xel nag fu mu àggul bu fa kastaloo iblis daf koy récupérer waaw moo tax ñu ci bari ci ñoom foofu lañu dem ba mujj sànk seen dund waaw waaye fekk na divinité absolue moom zikr mooy tax nit ki mën ko interpreté waaw moo tax yàlla ni wala zikrullahi akbar moo tax mu ni yonent bi wax leen wala zikrullahi akbar waaw waaye gis nga ci côté divinité absolue te muy uluhiyatu zaati yàlla ci la comp secret waaw secret bu xel mënul dab nu tuddee secret boobu la prophétie mais la prophétie universelle la prophétie philosophique yàlla jël ko def ko ci mbuus ëmb ko ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw muy la prophétie universelle nga xam ni dafay làmb xeet yi jiitu woon yépp ba ci xeet yu mujj yi waaw mooy prophétie universelle dafay làmb xeet yu jiitu woon yépp ba ci xeet yu mujj yi waaw waaye la prophétie philosophique dafay làmb rox yi nga xam ni am nañu dégg-dégg rox ba ci jiitu ba rox buy mujj waaw lu jar di seetantal waaw gis nga rox yàlla dina ko def ci doomu aadama doomu aadama bi juddu gane àdduna jaamu yàlla ba jóge fi te fekk roxam amul dégg-dégg waaw ndax rox bu am dégg-dégg mooy rox bu mën a enregistrer lumière waaw bu mënul enregistrer lumière boroom jaamu yàllaam mook jaamu yàlla ko xamul fu muy teg euh, tànkam benn la waaw moo tax mag ñi daan wax ni nga xàmme lu am solo la te itam Cheikh Tijani Chérif dafa wax ni baat bi yàlla wax ci alxuraan ni fahlamu annahu laa ilaha illallah nee na rox buy dégg moo ko tax muy wax ndax nee na yàlla xam na ni ñépp mën nañu tudd baatu laa ilaha illallahu ci làmmiñ waaw Cheikh Tijani Chérif moo ko wax waaw nee na yàlla xam na ni ñépp mën nañu tudd baatu laa ilaha illallahu ci làmmiñ waaye nee na ñi ko mën a dégg ci seen rox nag barewul waaw moo tax mu ni mu indi ni fexe leen ko xam waaw faax la mu annahu laa ilaha illallah waaw su ko defee nag yàlla daal di cof ca uluhiyatu zaati la ñoo tuddee la divinité absolue nga xam ni lépp secret la waaw te xel mënu ko natt waaw yàlla dal di fay cof la ñoo tuddee benn secret ñu delloo si ka ca lañoo ñoo wax nubuwa waaw waaye mu def ko mm, li tubaab di tuddee la prophétie universelle mu ni kooku na ca ñëpp jote ñi jiitu ak ñi mujj waaw bi ñu tuddee la prophétie philosophique mu ni kooku rox yu jiitu ak rox yu mujj yépp ña ca am dégg-dégg nañ ci jote waaw mu ni sunu paree nag ku nekk daal di interpréter waaw mu ni sunu paree ku nekk daal di interpréter moom la def ci yonent bi ba doppi indi yonent bi nag ci kaw suuf jox ko mission yonent bi nag am liggéey bu yaatu waaw te liggéey bi mooy ku nekk ak nim la war a yare waaw ku nekk ak ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a yare waaw te moom xamul lu ñaaw lu rafet rek la xam waaw moo tax bi mu ñëwee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko njëkke ci ña nga xam ni ñoom la yàlla boole ak moom waaw mu denc leen waaw ñu wax ni ay soxnaam lañu mu njëkke ko ci ñoom waaw mu njëkke ko ci ñoom waaw ku ci nekk mu won la cofeel gi mu am ci yow waaye du tee nag mu yar la waaw du tee mu yar la waaw parce que ku xool yonent bi na mu mel ak saydatuna Aïcha waaw ku xool yonent bi na mu mel ak moom waaw ndax dafa wax ni Aïcha ñaari cofeel moo ma boole ak moom waaw mu ni cofeel bi jiitu mooy ba mu gënee tuuti ba bés bi ma koy denc dama yëg ci moom leer goo xam ni ci dënnam du ca yëg ku dul sama jëmm man Muhammad te mu ni cofeel kenn mënu ko fay waaw mu ni bi ci des Ababacar mi nga xam ni ci loxoom la ko yàlla jaarale dafay koo xam ni su ma amoon genn wàll ni sama genn wàll waaw mu ni kon ñaari cofeel boole na waaw waaye gis nga loolu mu wax ni Aïcha mérité na ko yépp ci këram suñu laajoon soxna su ëpp lu mu la delloo si à la raison dañuy wax ni saydatuna Aïcha la waaw saydatuna Aïcha la waaw ndax fu yonent bi toogeeg moom rek xam yi nga xam ni léeg-léeg dina nekk ci jigéen te muy lanoo tuddee fiir waaw su ko defee bu xoolee bu waxee ci saydatuna Khadija mu gis ay Aïcha euh, xaw changé kanamam tuuti waaw yonent bi delloosi ko ci li Xadija def ci diine waaw dafay toog rek ba yàgg ndax moom xakim la waaw xam nga xakim du tëb rek ni nàngam ak nàngam nan ko defee nii dafay wax waaye su waxee wax ji njëriñ daf ci génn waaw su ko defee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni Aïcha lay waxal de ndax mi ngi toog waaw mu ni mës ngeen gis jigéen joo xam ni ba muy tànn góor juba mu tànn ko waaw mu ni Aïcha waxal mu ni ndax mës ngeen gis jigéen joo xam ni ba muy tànn góor xoolul alalam ndax góor ga amul woon xoolul dara jàmm ndax boobu moo ko yilifoon ndax góor ga daf ko doon liggéeyal waaye jubam nag moo tax mu tànn Aysa gestu ne ah yéeme na de mu ni ko benn benn nga waaw beneen bi mu ni mës nga gis jigéen ju am sages bu tolloog mu mën xàmme malaayika ak jinne Aysa ni ah yéeme na de mu ni ko ñaar ñaar ma nga noonu mu ni ko mës nga gis jigéen ju jël alalam yépp def ko au service de lislaam te lu nekk dégg na ko ca waaye delluwal gannaaw Aïcha ni ko waaw yow kan ngay wax noonu mu ni ko ah Khadija waaw mu ni ko Khadija waaw mu ni ko moo tax li ko yàlla jagleel néew na jigéen ju mu ko jagleel bu Aïcha bëggee sëgg yonent bi ni ko ah Aïcha fu nu tuddee ku baax da ngay fettesu mu ni ko fettesul waaye ci Khadija waaw soo defee Aïcha def nii baaraamam daal di ni pat delloosi na ko waaw delloosi na ko te jaaru ko rekk ci kër gi nii la tëddee nii la deme waaye daf ko delloosi ci sacrifice yi Sayyidatuna Xadija def waaw ba Aysa yëg ni delloosi na ko waaw waaye teewul gis nga yar bi moom foofu la ko doore waaw soo ko koy génn nag ci biti waaw te bi mu ko génnee ci biti moom xamoon na moom yonent bi ni mënul am jàmm mukk ndax ñim ko seqal ñoo tax waaw ñu embargo ko defe ni dana bàyyi bàyyiwul ñu fexe ba mu génn Màkka dem medin ñu defe ni dana bàyyi bàyyiwul waaw moo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mu wax ma bés ni génnu màkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem medin mu ni bare na ñu ko naqarlu ci nitu diine yi ndax ku juddoo ci dëkk nga obligé génn gàddaay mu ni waaye xamuñu woon ni génn googu mënul woon ñàkk waaw mu ni xamul woon génn googu mënul woon ñàkk waaw ma ni ko lu tax mu ni ma ndax suufu Medine moo ko ñaan mu ni ma suufu medin moo ko ñaan ndax yonent bi tollu woon na ci digganteem ak espace intermédiaire yi ba ñëpp dañ ko daan xëccoo waaw moo tax keroog bi mu ganee àdduna la njëkk delloo njukkal borom bi sant ko ci gane àdduna bi yonent bi gane àdduna mooy suuf waaw waaw moo njëkk delloo njukkal borom bi keroog waaw te seetal suuf nun dañ koy minimise waaw waaye fekk na boo demee ci xay bu amul luñ fay xeeb waaw ndax lu nekk day connecté ak borom bi ndax borom bee ko bind bi yonent bi gane àdduna la njëkk delloo njukkal borom bi waaw ci gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo di suuf waaw suufa njëkk sant yàlla suuf a njëkk sant yàlla waaw waaye itam gis nga bi suuf paree ki njëkk wane tristesse moo di asamaan waaw asamaan moo njëkk wane tristesse am waaw ni benn jëmmu rekk laa amoon bu mel ni moom mu nekk fi waaw tey jëmmu ja xëy ñu wàcce ko mu dem wuy ji suuf ni te mënatuma am nag ku mel ni moom waaw ca la malaayika yépp jooytul ko ci kanamu borom bi waaw biñ ko jooytulee ñaan yàlla kat ni ko asamaan ki nga génne tey ci bérébam yóbbu ko ca suuf suuf kontaan na ba sant na la waaye asamaan mi ngeeg tristesse donte ma ngi lay sant nee na amatul ci lu mu jàpp ndax ki mu ki mu jàppoon ni moo fi ne te gën ñépp mu amoon ko comme cadeau wàcc na yàlla ni malaayika yi wax leen ko mu muñ waaw moom asamaan ndax dëgg la wàcc na waaye dina ko gane siwaat waaw wàcc na waaye dina ko gane siwaat moo tax ca laylatul mi'raj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee ca masjidil haram jaar ca baytil muqaddas ba ba muy dugg ca biir asamaan ya keroog mbégte mi asamaan am ci resevoir yonent bi gëjoon na ko am ba mu yëgee ni rooxu yonent bi mu ngi ci biir ay espace intermédiaire waaw seetal ñooñu te ñii kenn bokk ci ci xeetu doomu aadama waaye ay mbindeefub yàlla lañ waaye yëg nañ doole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëg nañu pouvoir yonent bi yëg nañu sagesse yonent bi ba yonent bi jaral na leen lu ne su ko defee nag mu teg tànkam ci suuf suuf sant yàlla waaw mu jóge ci asamaan yi asamaan jooytu ba malaayika yi ñaanal ko borom bi borom bi ni ko dina la seet si waat waaw dina la seet si waat moo tax Cheikh Tijani wax ni jóge Màkka dem Médine nee na suufu Médine moo ko ñaan waaw suufu Médine moo ñaanoon recevoir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yàlla daal di ko koy accordé parce que yàlla buy accordé dara faw mu wutal ka la ñoo tuddee prétexte waaw faw mu wutal ka prétexte moom borom bi noonu la mel waaw lu muy accordé rek dana wut lu xew ba mu accordé lool isaa ibnu maryam dañu toog ca xadaratul ilaahiya ñuy waxtaan man nag moom ci mission mu ni ma gis nga naa la dee lenn ma ni ko waaw mu ni ma sama yaay sayyidatuna Maryam su ma la waxee lenn ci moom rekk dina la jaaxal su fekkente ni xamoo tempérament waaw ma ni ko lu may ci jaaxal mu ni mësul bëgg mësul bëgg ñu tuddal ka njaboot fii ci kaw suuf waaw bëgg ñu tuddal ka njaboot fii ci kaw suuf Isaa ibnu Maryam moo ma ko wax waaw ma ni ko jaaxaluma mu ni ma lu tax ma ni ko parce que moo taxoon mu dem ci jàngu ba ni du am borom kër waaye gis nga ma ni yàlla bi mu décidé nga ñëw yow te boobu kéemaanam moom borom bi moom la bëggoon wane nan la def ma ni ko créé na ci moom njaboot waaw te gis nga ma ni xoolal li nga ma nettali ni moom mësul bëgg nu tuddal ko njaboot ma ni tey fu ñu la tudde tudd sa way jur bu jigéen waaw kenn du wax isaa yam ci ñépp dañ naan isaa ibnu mariam waaw ma ni ko kon yàlla su soxloo def dara dangay gis ni dafay wut benn prétexte rek waaye dal di def la muy def waaw te jigéen ju sell ba wax ni bëggoo am doom bëggoo am boroom kër waaw yàlla xëy rek ni indal masala isa inda allahi ka masalil aadam xalaqahu min turab summa xaala lahu kun fayakun waaw ni kon bu mu leen jaaxal mu ni isa ibnu maryam bu mu leen jaaxal bu leen aadama jaaxalu ndax aadama xalaqahu min turab isa ibnu maryam su ma xàllalahu kun fa yakun waaw su ko defee kii mu jaarale ko ci matière kii mu jaarale ko ci la ñoo tuddee l'antimatière waaw te c'est la lumière waaw te lépp nag ci benn kàddu moom yàlla muy kun fa yakun bi waaw kun fa yakun bi moo jur xalaqahu min turab bi mu wax ni su ma xàllalahu kun fa yakun mooy dellu yi ci côté nuuraan yi waaw ndax lépp amal mu am rek la waaw innama amruhu ija arada shay'an an yaqula la kun fa yakun waaw mu ni kon aadama jaaxalu leen kon bu leen isaa ibnu mariam it jaaxal waaw kii bind naa ko ci matière kii bind naa ko ci lanti matière waaw kee dellu ci côté nuuraani yu kii dellu ci côté matière su ko defee yàlla misaal ci waaye gis nga misaal bi li muy rëy rëy yépp pour doomu aadama yi bàyyi ci xel moo tax waaw xam nga mission aadama alayhi mënul woon jaare fenn lu dul ni yàlla dina créer matière bind ci aadam soog ko fi indi waaw li ko li ko lal mooy aadama dafa war a am ay descendance aadama dafa war a am descendance te itam ay descendants am yépp kenn ku ca nekk dañ lay xàmmee ci taxawaayu Adam mooy lañoo tuddee ñun tey un être humain waaw su ko defee yàlla ni dafa am fu ma leen di jaarale yàlla ni dafa am fu leen di jaarale def leen ay xeet yàlla ni dafa am fu ma leen di jaarale def leen ay kuréel yàlla ni dafa am fu ma leen di jaarale boole leen ci benn branche waaw su ko defee nag loolu mooy descendance su Adam alayhi salaam waaw waaye Isa ibnu Maryam moom warul woon am descendance waaw kon soxlawul woon ñu koy jaarale ci matière moo tax mu dund fi ba dem te amul soxna moo tax mu dund fi ba dem te amul njaboot waaw moo tax mu dund fi ba dem te amul soxna moo tax mu dund fi ba dem te amul njaboot waaw moo tax benn wëliyu yàlla laaj ca xadaratul ilaahiya ba wax ni su fekkente ni côté Isa ibnu Maryam côté lumière la ba warul am descendance mu ni koon bu dellusee lan moo tax nu di ko may soxna waaw ndax dafay dellusiwaat ak nuuraaniyom wala wala dañ koy wàññi ba tax nu may ko soxna ba ni ko demewul noonu ba ni ko demewul noonu parce que Isa ibnu Maryam ma ni ko soxna suñ koy may bu dellusee soxna soosu it munoo wax ni ci matière lañ ko tabaxe waaw mu ni ko waaye ñu ko xam bariwuñ waaw sayyidatuna mariyam ma ko xam moo tax mu koy joxoñ soxna soosu sa Arafat waaw fa mu toog ak kaamilam jàng ca lam ca jàng waaw ma ni ko bu dellusee soxna suñ koy may kooku mënoo ko dellusi ci matière waaw mu ni ma kon xanaa nuurun ala nuur la ma ni ko nuurun ala nuur la waaw waaye nag yahdillaahu li nuurihi man yasha ni ko moo tax muy xam bu nëb ma ni ko nuurun ala la waaye yahdillaahu li nuurihi man yasha waaw waaw waaw yàlla day defe noonu yàlla day defe noonu te ñu bari xamuñu ko gis nga xayb ak shahada xam naa lu muy faral di sax sore ci xelu ñenn ñi walla seen rox moo tax léeg-léeg du ñu bàyyi xel dëgg-dëgg cohabitation bi am ci diggante bi bi am ci diggante bi gis nga boo demee Fès ci xabru Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ñu bari dañ fay dem def visite taxaw daldi di ziyaare ñaan léeg-léeg sax nga gis ñu teg ay bouteilles yu ndox ci wet gi def seen zikr daldi dem waaye am na lu gën a yéeme lu nekk ca xabru ba te ñu bari teguñu ko bët waaw ndax am na soxna su sàngoo lu weex tàll lu weex lay sol te ma nga lal sijaada naafila bu mu paree ñaari rakka tegaat ci beneen naafila su naafilay ñaari rakka teg ca beneen naafila naafila tegaat ca ñaari rakka jàng sooratul fatihi jugaat naafila waaw bi ñu dencee Cheikh Tijani Chérif ci biir suuf ba léegi naafilam boobu dakkul sooratul fatihi boobu muy jàng dakkul te li gën a yéeme te li gën a yéeme mooy soxna soosu dund na ci kaw suuf at yu barewul waaw te ñu bari ñu ngi koy recherche te xamuñu waaw te ni mu visible sax dana ma jaaxal nit dem fa te du ko gis waaw te waxuma malaayika la de te nit la ndax jot na dund at yu barewul ci kaw suuf waaw lu weex tàll lay sox bu naafi naafila ñaari rakka teg ci yeneen ñaari ràkka jàng suratul fatih naafila waat su ko defee daf lay jaaxal waaw ndax li lay jaaxal ci moom mooy julli bi muy julli shariatu muhammadiya du ko àtte moom soxna sos waaw ndax dangay gis mu julli naafe la jublu côté bi nga jékki saa tuuti toog mu naafe la jublu côté bi nga jékki saa tuuti toog mu naafe la jublu côté bi te li gën a yéeme ci jublu boobu muy jublu du du dafa dëmmooyu kaaba gi mais kaaba gi moo koy topp ci jubluwaayam waaw moo tax bi ma fa demee ma ma di ko toppandoo ñu bari defe ni dama fa doon tawaaf fekk dama ko doon toppandoo ma jublu fii jékki saa jublooti fee jékki saa jublooti fee ñu bari defe ni tawaaf fu ma yëkkati fekk na tawaaf yëkkatiwu ma ndax tawaaf ca kaaba gi lañ koy dem waaw lu ma yëkkati mooy dama ko doon toppandoo ndax fu mu jublu kaaba gi topp waaw waaw te mu ngi ci xabru Cheikh Tijani Chérif waaw waaw seetal loolu yàlla li muy maye ci pouvoir kenn xamul na mu toll xam nga kooku soo ko bëggoon delloo ci matière léegi da ngay jub waaw moo tax bi waliyu yàlla bi laajee loolu ni Isa ibnu Maryam kon comme moom nuuraaniyu bi nekk ci moom a taxoon mu juddu fi yaru fi ba bañ koy delloo asamaan di ko élever au ciel amul soxna amul doom bu dellusee nag te di wàcce ci tunnelu lumière ba lu tax nu di ko may soxna waaw ma ni ko soxna soosu mën na juddu waaye nag munoo ko delloo ci matière waaw mu ni koon xanaa ci nuurun ala nuur lañ koy delloo ma ni ko waaw waaw nuurun ala nuur waaw waaye ma ni ko di yahdillahu li nuurihi man yasha waaw moo tax yàlla ku mu gidde jëmale la ci leer rek yow yaay xàmme te xàmme itam lu am solo waaw waaye gis nga moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh wax ni suufu Médine moo ñaanoon mu ñëw fa waaw mu wax ni suufu Médine moo moo moo ñaanoon mu ñëw fa yàlla créer prétexte waaw bàyyi màkk ñu fitnaal ko ba defe ni ñoo ci ne waaw ba ñu ko fitnaalee yàlla ni ko gàddaayal waaw te seetal li mu doon organise ci wet gi ni ko gàddaayal mu gàddaay dem Médine ñu accueillir ko waaw waaw ñu accueillir ko waaye gis nga li accueil bi di rëy rëy yépp yonent bi la mu bàyyi xel ca accueil ba mooy teraanga gi nga xam ni yàlla defal na ko jaamam te di suuf te suuf ñaanoon recevoir yonent bi sallallahu alayhi wa waaw muy lu am solo ci dundam moo tax étape la boo xam ni kenn mënu la nettali mbégte mi mu juróon ci compagnon yonent bi ña mu àndaloon rawatina ko mel ni Ababacar waaw ndax keroog bàyyi na lépp bi mu koy topp ñu ña ñu mu àndaloon ñëpp dañu doon wax ni bu ko toppee bu ñu demee it ñu dàqaat leen ndax ñi mënuñu nekk fenn waaye gis nga ba ñu demee ñu indi leen akay boo xam ni kenn mësu mësu ko gis waaw accès gu sax accueil bi dal di fés waaw taala al badru alayna waaw ñëpp di way waaw ñuy tëkk di yéeg ci tàndarma yi di ko séentu waaw ci koo xam ni kat dëkk ba muy jóge fu mu ne buy dox sax dafay meraayu ànd ak ànd ak daana ko ker gi waaw di dox ci miir yi waaw bañ ñu gis ko muy dem fële ñu jàppe ko visit officielle waaw ñépp génn waaw ñëpp génn ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba dalal ko waaw bañ ko dalalee ndeysaan moom itam mu dalal rab wi mu àndaloon te muy gëléemam mu dalal gëléem bi waaw ndax may na gëléem bi autorisation bu tolloog gëléem gi tànnal ko fan la war dal waaw fan la war dal te réalité bi ci ne dépassé na lii gàmmukat yi di nettali waaw ndax léeg-léeg rek nu nettali la ba gëléem nga tëddee ñu wax ma ni gëléem gi gëléem gi la ko tëral xamuñu ko waaw ndax gis nga suuf ak asamaan dafa am benn particularité bu ñu am te xel mënu ko dab waaw mooy lanoo tuddee bu dee doomu aadama la un être humain la tuddee ni rooxam fii la ne léeg-léeg nga dégg ku ko laaj waaw léeg-léeg nga dégg ko laaj ni waaw rox moom fan lay nekk ci doomu aadama waaw su ko defee nag ñu ne la xuli ruuxu min amri rabbi waaw wa ma utitum min al ilmi illa xalilan waaw loolu bu ñu la ko waxee dañ la bëgg limité parce que dañuy xam ni am na sa science lu mu lu mu lu mu àttalul waaw léeg-léeg nga dégg ko ko laaj waaw wax rek ni rox fan lay nekk ci jëmmi doomu aadama waaw ma ni leen pourtant rox mi ngi ci biir xol waaw rox mi ngi ci biir xol waaye branché wuñ ko ci xol bi waaw moom la ñu bari xamul mi ngi ci biir xol te branché wuwul ci biir xol bi mën nga teggi xol bi rox bi des waaw te boo dugalee tey xol bi mu placé wu waaw xuli ruuhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa xalilan te gis nga foofu mu nekk tomb tomb bu tuuti boobu rayon lumière yi muy dégager dem na ba ci catu weewu tànk doomu aadama dem na ba ci catu kawaru bopp doomu aadama waaw te boo dindee xol it doo dindiwaale rox waaw moo tax nga mën a dem jëli benn xol boo xam ne plastique la implanté ko ci nit mu continue di dund waaw bu doon boo dindee xol bi rox bi ànd ak moom soo ko ci defee nit ki dootul dund looloo tax nga gis rayon yi dem rayon lumière ya muy dégager dem ba ca catu weewu tànk waaw yenn yi dem ba ca catu kaw kawaru boppam waaw kon yaram bi yëpp branché wu waaw yaram bi yépp branché wu waaw looloo tax nag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee Médine gëleemam bi daal di agsi rekk fekk boobu ñëpp ngi bëgg dëkk ak yonent bi waaw ku nekk di laaj waaw laata muy ñëw borom alal yi bàkku woon nañu nee ñu bu ñëwee comme c'est un prophète ñun lay dëkkal waaw ndax ñun noo amee alal joo xam ni fu mu ne nii bu dëkkeek ñun dina nekk dans de très bonnes conditions waaw ñiy wax ni déedéet day dëkk ñi ñàkk pour di leen dimbali waaw ñi ni déedéet day dëkkak ak ñi tumranke pour di leen protéger kon ku nekk wut nga benn prétexte pour wax ni rek bu yonent bi ñëwee yow la war a dëkkal waaw waaye yonent bi itam wan leen ni borom nubuwa kenn du ko dicté la mu war def waaw ndax ci ordre divin lay doxe kon ki ko yónni dina ko sàkkal la muy def su ko defee nag gëléem gi ci état boobu mu nekkoon ca la yàlla jëlee ay rayon lumière ca xayb nawaa mis commencé commandé gëléem gi waaw yaa ngi gis gëléem la waaye dootul gëléem rek de ndax rab la buy dox mais nawamis yi ñoo ko doon commandé waaw muy dox ñu di ko régler muy dox ñu di ko regle ba ci fii kàddu njëkkoon génne ca suufu Médine ñaan borom bi pour dalal yonent bi gëléem gi daal di tëdd tàllal loo sax kooku bu suuf si doon am rox dañuy wax foofu moo doon roxu suuf si foofoo njëkk génne voix bi voix bi dem ci borom bi mu ni ko bëgg nañu dalal yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan nañ la waaw bi gëléem gi di dox ba toll foofu ca la ko nawaami si commandé wan ko ni fii moo génne woon voix bi gëléem gi ca tëdd tàllal loo sax yonent bi ni kon du kër kon jàkka la waaw mu ni kon du kër kon jàkka la ñu jóge fa la ñu jógee seen tabax ba waaw fa la ñu jógee wuti caru tàndarma ya wuti ban ya wuti birigee commencé waaw na masjidi rasul meloon démb waaw waaw commencé di liggéey di liggéey di liggéey ba liggéey ca lan ca liggéey waaw waaye nga gis ni nga gis ni kon yàlla moom buy organiser nu nekk lay organiser waaw ndax boo ko jàngatee foofu rek xam ni yonent bi mënul woon demee xalaatu boppa mënul woon deme xalaatu boppam ndax lan ko dénkoon moo tax waaw su ko defee nag compagnon yi ko rejoindre yépp ànd ak moom foofu waaw Médine mujj nekk seen suuf Médine mujj nekk seen suuf waaw te ñëpp waxoon nañ ca Màkka ni bu fa demee daañ ko xatal ndax ñi mën ñu nekk fenn waaye ñu dem fa rek daal di fay yaatu waaw ñu dem fa dal di fay yaatu yonent bi fas ak ñoom kóllëre yonent bi fas ak ñoom kóllëre waaw waaye yàlla xëy ni ko loo fas ak ñoom fas ak ñoom kóllëre na fexe ba saxal lenn ci ñoom yonent bi ni ko lu may saxal ci ñoom yàlla ni ko na nga saxal ci ñoom imaan waaw na saxal ci ñoom imaan saxal ci ñoom imaan te muy lañoo ñoo tuddee la foi waaw muy ngëm lu am solo la waaw ngëm lu am solo la waaw bi ko yàlla waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la yonent bi xamoon ni liggéeyam mënul tuuti waaw ndax saxal ngëm ci doomu aadama lu jafe la waaw lu jafe la waaw ndax ngëm lu tax mu jafe denc mooy bés boo ko arrosé wul ak lumière mën na xëy daal di rocceeku waaw te gis nga yàlla bu bëggee détruire jullit ndax yàlla dina détruire jullit dina détruire yéeféer waaw yàlla dina détruire jullit dina détruire yéeféer na muy détruire jullit mooy su demee ba wax ni fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun waaw kooku détruire na la alladina yuraahuuna wa yamnawuna almaahun waaw kooku détruire na la fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun loolu destruction la xamul waaw dem ba wax ni mbugalu safara waylun ñel na ñuy julli te di ko sàggan waaw xam nga kon sàggan bi dafa am sabab sàggan bi ci julli ja dafa am sabab waaw sabab biy jur destruction bi mooy imaan bi la borom bi commencé di duuteloo waaw imaan lu ñuy war a protéger la waaw lu nuy war a protéger la te lu dàq di protéger la waaw lu naq di protéger la waaw moo tax yàlla ni yonent bi saxal ko ci ñoom yonent bi xam ne liggéey bu rëy la ndax gis nga iman na muy manifesté nekkee ci nit te opérationnel ndax léeg-léeg iman dina nekk ci nit te opérationnel waaw iman ci ñetti façon lay nekkee ci doomu aadama waaw iman dina nekk ci nit opérationnel dina nekk ci nit fekk opérationnel dina nekk ci nit nekk lu kadib lu kadib imaan bu kadib waaw kenn xamul loolu lan bu opérationnel nit ki bés bu xëy day gën a sopp jaamu yàlla day gën a sawar ci jaamu yàlla day gën a bëgg lu baax bu opérationnelul nit ki bis bu xëyee day dute ndax ci jaamu yàlla bi mu nekk mbaa du ko tardeel lii mbaa warul def lale boole ko ak jaamu yàlla bi yàlla mën na jéggale nangam nangam teemaa dugg ci lii teemaa génn ci lii boobu imaan bi opérationnel waaw bu nekkee nag imaan bu caduc foo gisee lumière da nga koy xeex waaw waaw te bu ci ne imaan looloo tax xay bu ñu wax ni nit wax ni man gëm naa yàlla am naa imaan ba pare def dara loo xam ne dafay jaaxal jullit yi ñu ni jarul jaaxle amee na imaan waaye imaan bu kàddu la waaw su ko defee nag bu opérationnelul boobu sax mooy sonal borom ci duut ngay dëkk waaw ci duut ngay dëkk waaw doo xam ndax yaa ngi ci lu baax wala yaa ngi ci lu bon doo xam ndax danga war a julli wala da nga war a bàyyi ba si kanam tuuti ba nga gën a mag nga soog a commencé julli doo xam ndax danga war a jël wér wala da nga war a euh, demoo yu tarixa ndax xamoo lan la boobu mooy imaan bu opérationnel waaye gis nga bu opérationnel nag certitude ngay dund certitude ngay dunde looloo tax wëlu yàlla yi ku leen xeeb ñoom ku leen xeeb ñoom seen martaba bu lay dal sa imaan lay rekki waaw sa imaan lay rekki ku leen xeeb rek seen martaba bu lay dal sa imaan lay rékki waaw seetal parce que imaan moo ëpp importance ci doomu aadama boo ko amatul nga xool ba nga ko amee ak ba nga ko am amatul dafay mel ni ñaari nit yu bokkul waaw mel ni ñaari nit yu bokkul mën nga gëm yàlla bu bés bu xëy yaa ngi jëm ca kaaba ga wax fa ngay naafi la waaye gis nga bu imaan bi dañee la ngay njëkk regret mooy loo doon wuti kaa bëgg waaw waaw te yaa ngi ko doon def avec volonté waaw moo tax lu am solo la waaw yàlla ni yonent bi def ko ci jullit yi waaw yàlla ni yonent bi def ko ci jullit yi waaw mu ni ko def ko ci jullit yi ba bu dëgër ci ñoom mu ni ko ndax bés bu dëgëree ci ñoom lu ñu sumbati daañu ko daan waaw te mooy booy xare daañu taxaw mu ni ko waaye bu dëgërul ci ñoom boo doon xare ba suba ci ñi lay tra ci ñi lay trahir ñoom ñoom ñëw ci jiitu waaw yonent bi xam ne am na liggéey ca li ni ko nag foog ma jël benn benn suraat di ko dimbali ko te mooy ma jàngal leen ni leen wal ashri inna al insana la fi xusrin illa allazina wa amilu salihat wa tawasaw bil xaqi wa bi sabr boobu yonent bi xamoon na ni ndekete liy fondation imaan ci doomu aadama en premier mooy mu dëggu waaw yonent bi xam na ko mu ni leen liy fondation doomu aadama ci imaan en premier mooy mu dëggu waaye mooy muy muñ waaw mu ni leen mooy mu dëggu mooy muy muñ waaw parce que mu ni bu loolu amul du sotti mu ni leen mooy fondation doomu aadama ci imaan waaye gis nga saxaaba yi ñëw kenn ku nekk ci ñoom rawatina ku ci mel ni Umar mu ni ko yow bokkatoo ci ndax danga xam lan mooy sa priorité te soo xamee luy sa priorité rek daal di texe waaw boo xamee luy sa priorité daal di texe waaw moo tax bari na koo xam ni bés bu ne mi ngi ñaan nan lay def ba texe fekk na am na réponse waaye yëgul réponse bi parce que boo bëggee texe dangay fexe xam sa priorité waaw boo ko xamee rek texe Umar ñëw ci Muhammad ni ko daal bu ma amoon junney jukko yu yàlla gërëmul waaw dinaay jug ak ñoom di daanu waaye naa ko jëndee ñaar yu yàlla gërëm waaw yonent bi ni ko yan ñaar mu ni ko dëggu ak muñ waaw mu ni ko dëggu ak muñ waaw lu am solo la parce que boo dëgguwul kenn mënul am ci yow confiance waaw waaw boo mënul muñ aussi kenn mënul ànd ak yow ci mission waaw ndax ñaar yooyu yëpp mission daf ko laaj waaw mission dafa laaj dëggu waaye dafa laaj aussi mën muñ waaw moo tax Umar wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nag ci la jóge daal di koy daal di koy boole ci ay bras droit boole ko ci ay bras waaw waaye gis nga boo defee lanoo tuddee taxaw seetlu te mooy seetantal li tax yàlla wax yonent bi ni ko imaan na nga fexe nga implanté ko na ko implanté ci xolu jullit yi waaw dafa am lu ci yàlla jub li ci yàlla jublu mooy ñetti message yi mu war a jàllale waaw bi ci jiitu mooy message universel bi waaw message universel bi yonent bi war a jàllale waaw kooku ku amul volonté du ko ci jàppale waaw ndax message bi ñëpp ci war a jot waaw te mooy message yu alxuraan moo tax message boobu ñëpp dégg nañ message universel bi waaw ndax yonent bi ñetti message yooyu la ko yàlla santoon mu jàllale ko message universel message spirituel ak essence spirituelle mu war a tàmbalee ci message universel bi yàlla ni ko message universel bi dialogue la laaj mu ni ko message universel bi dialogue la laaj dajaleel notable yi dajaleel ñi dëkk ci pénc mi nga dialogué ak ñoom waaye booy dialogué ak ñoom aussi na nga leen wax lan mooy sa priorité te bàyyi leen ak ñoom nag ak seen xalaat ak seen priorité moo tax gis nga religion islamique dafa laaj jaloo mais gis nga li muy laaj dialogue yépp li ñuy teg sur la table ba tax dialogue bi mën a am mooy priorité diine ji fan la féete waaw mooy dialogue boo xam ni dialogue bu nu mën a dégg waaw priorité diine ji fan la féete waaw moom la yàlla waxoon yonent bi ni ko demal notable yaa ngi noonu message universel bi na ko jàllale yonent bi ni ko ci lan laa koy jaarale yàlla ni ko jaarale ko ci dialogue wool notable yi wool ñu nekk ci pénc bi nanga nga dialogué ak ñoom su ko defee kenn ku nekk dina la wax li mu xalaat ci sa nekk yonent kenn ku nekk dina la wax li mu xalaat ci sa message kenn ku nekk dina la wax li mu xalaat ci sa yàlla bi ngay woote sunu paree nag nga wax leen yàlla bi ngay woote kan la waaw moo taxoon yonent bi organiser dialogue te boobu fekk na dialogue bi sax yàlla xamoon na ni piège la ndax du woon dialogue waaye dañu ñëwoon pour tiiñal ko dañu ñëwoon pour tiiñal ko dañu ni nan ko woo comme moo fi nekk di woote yonent su ko defee bu ñëwee toog bu waxee rek na ñëpp reetaan waaw bu waxee rek na ñëpp reetaan màkk di ko jëwee loolu waaw màkk di ko jëwee loolu ba tax nag bés bi mu demee asamaan moom yonent bi ñu ñëw laaj Ababacar waaw subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina ñu ñëw laaj Ababacar ni ko waaw yaa ngi dégg rumeur bi ci dëkk bi waaw ni ban rumeur ñu ni ko sa waa ji lu mu waxati waaw sa waa ji lu mu waxati loolu lañ daan wax Ababacar ñëw rek ni ko yow dégg nga sa waa lu mu waxati mu ni lu mu waxati ñu jàpp seen biir ñoom ñëpp di xàqataay waaw bi ñu paree ñu ni nee na dafa demoon asamaan waaw mu ni lu tax ngeen di ñëw pour wax ma ko ñu ni dañu xam ni euh, li ngay topp ci ginnaawam yépp di dof dof lu doo ko gëm waaw Ababacar ni li ma xamul mooy ndax moo ko wax nu ni moo ko wax ci moom la lu jóge du moo tax nuy reetaan bi mu ni koon dëgg la ci lu ñu mujj ni ka nag ñun ñëpp dañ ni woon boroom xel nga wér na waaye ndekete ndekete wéroo ndeke àndoog sa xel waaw waaye nag loolu génnewu leen ci dinañ leen yóbbu ci pénc mi ngeen waxaat waaw xamu boobu Ababacar li ci xelam moo doon daw wax yonent bi ni ko suñ la wooyee ci pénc mi di la laaj donte dem nga asamaan na yam ci sunu diggante waaye bu leen ko wax ndax bëggul woon ku tiñal yonent bi yonent bi ni ko message yu dëgg kenn du ko nëbb parce que su ma noppee waxuma leen ko dafay mel na kon man dew ma walla li may woote amul danaa leen ko wax waaw ñoom ñëpp ñu daw ci si yonent bi ni ko ndax pare nga pour buñ la woowee ci pénc mi wax ni yaa demoon asamaan nga ni dëgg la yonent bi ni pare naa pour ñu woote pénc ma yépp waaw ak tàmbur ya tàmbur ya ñëw waaw ñu ni ay ci Muhammad mu ni lan la ñu ni ah danga wax ni da nga demoon asamaan di yonent bi ni waaw yàlla yóbbu na ma fa jëlee na ma masjidil haram yóbbu na ma ardul kursi waaye jóge naa fa itam dem naa asamaan waaw ñu reetaan reetaan ba mu neex leen ñu ni ko doonu bëggoon nga yëkkati sa benn tànk mu ni pour lan ñu ni ko démonstration rek la waaw mu yëkkati benn ñu ko doon bëggoon nga yëkkati beneen bi mu ni kon kay foog ma teg bi ñu ni gis nga ñu gis nga ñaar yi mënul jugandoo waaw léegi nga ni nga ni nga ni dem nga asamaan te li yéeme mooy yonent bi mënoon na taxaw ci ngelaw li ndax li ko yàlla dénk ci mujiza loolu moo ci gën tuuti waaye fekk na comme boobu message universel la yoroon te ñëpp la waroon jàngal ñépp a ko waroon dégg su defoon noonu li ñu waxoon rek la ñuy waxaat xaalu haja shahrun mubin waaw su defoon noonu lu ñu waxoon rek la ñuy waxaat xaalu haza chehrun mubin waaw su ko defoon ñu ni njabar la waaw njabar bu bu bu leer nàññ la ñu koy jàpp waaw te mu xamoon ni message universel la yore te ñoom ñëpp la yonent bi war jàngal waaw moo tax yonent bi taxaw rek wax ak ñoom waxi nit waaw parce que gis nga dialogue dialogue lool la laaj waaw dialogue loolu la laaj bu dee ci mission loolu la laaj ndax yonent bi loolu la def ak ñoom ca dialogue waaw mooy nit dina am fu mu toll loo doxe doxe xaal boo ñëwee ci moom ci dialogue waxal ak moom waxi nit waaw noonu la yonent bi def waaw boobu mënoon na yëkkati ñaari tànkam de teg ko ci ngelaw li ndax yàlla dénk na ko moo jiza yoo xam ni wane na ko te foog naa ni yëkkati sa ñaari tànk teg ko ci ngelaw moo gën a tuuti ci lool waaye yonent bi dafa yëgoon ni dialogue bi li mu laaj mooy comme ay nit lañu xamuñu ñu wax ak ñoom waxi nit waaw mu dellu di leen jéem a convaincre di leen jéem a convaincre di leen jéem a convaincre ba ñu yàlla nanguloo seen xol ñoom seen xol nangu ñi yàlla nangulul seen xol ñoom nanguwuñu ñi wax ni nangu nañ te nanguwuñu nag yàlla ni ko moytul ñooñu waaw yàlla ni ko moytul ñooñu gis nga waxu ko moytul ñi nanguwul de waaw wax ko moytul ñi nangu de dafa ni ko moytul ñi wax ni nangu nañ te nanguwuñ waaw wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmi al axiri wa bi muminin waaw yàlla ni ko moytul ñooñu waaw mu ni ko ñooñu ce sont des hypocrites waaw mooy naar feq yi mu ni ko daañ la wax nangu nañ nii ci làmmiñ waaye fekk na seen xol yàlla ni ko kon moytu leen ndax seen jëf du ko wane ci la yonent bi décidé bàyyi leen xel waaye gis nga lim leen di bàyyi xel yépp teewul message universel bi jàllale na ko ba ñoom ñëpp jot nañ ci waaw ndax dégg nañu message u alxuraan waaw su ko defee nag mu des message spirituel bi waaw message spirituel bi yonent bi daf ko delloo ca xayb waaw daf ko delloo ca xayb waaw demander ligne de communication yi nga xam ni moom la doon waxee ak boroomam ba boroomam wax ni xaaba xaw say ni aw àddina waaw ay ligne de communication la yonent bi doon jokkook boroom bi mu demander ligne yi mu demander ligne yi ñu jox ko ci benn liiñ gis nga ligne biñ ko joxoon moom la noo tuddee xeetu malaayika boobu nuy wax raf-raf waaw boobu lañ ko jox xam nga jibril aleyhi bi mu àndeek yonent bi ca laylatul mi'raj mu ñëw ba gis ni espace intermédiaire am jeex na dafa wax yonent bi fii la mën a yem waaw dafa wax yonent bi moom Jibril aleyhi salaam ni ko fii la mën a yem ndax espace intermédiaire am jeex na waaw yonent bi taxaw waaye tum yàlla indi benn ligne de communication bu amee jëmmi malaika waaw boo ko gisee mook forme rab bi nun nuy tuddee mbott rab bi nuy tuddee mbott léeg-léeg muy faral génn ci nawet ñoo yam ñoo yam ni leen binde waaw ñaari tànk yu tuuti la am ci kanam ñaari tànk yu tuuti la am ca gannaaw waaw gis nga ni mbott di tëbe moom su plongé deux mille milliards de kilomètres ci lumière mën na ko jàll ci benn plongée moom raf yonent bi demande ligne de communication bi ñu ni ko ñu jox la ligne de communication wu malaika boobu nu tuddee raf-raf nga toogoon ci diggu gannaawam nga xam ni bi mu plongé ca nga dal ca sidratul muntaha waaw yàlla ni xaaba xaw say ni aw àddina waaw yonent bi récupéré ligne de communication bi ba noppi bëgg dem borom bi ni ko defal attention mu ni ko lu tax mu ni ko parce que kooku turam du rafraf raf yàlla la bu nu kodee waaw mu ni ko te soo ko yóbbee ci monde shahada su ko fa nit ñi déggee buñ ko tuddee malaayika bi li mu mënoon ci wàllu fonctionnalité am ci xay bu dootu ko mënati waaw mu ni ko ko def ci ndànk seetal loolu malaayika la ca laylatul mi'raj moo ngoom yonent bi mu toog ca diggu gannaaw mu plongé deux mille milliards de kilomètres yonent bi ak ci sidratul muntaha waaw yàlla ni xaaba xaw say ni aw adnaa ba noppi yonent bi war a jàngale jàllale message spirituel bi mu demande ci ligne de communication yi mooy tey li nga xam ne su ñëwoon dañuy wax ni kon dafa tarbiya rox yi tarbiyatu rox la leen di defal waaw ñu jox ko ci bu raf-raf muy ñëw nu ni ko tuddul raf-raf tudd raf-raf wax nañ dëgg waaw dañu ko dañu ko abrégé rek waaw ñu ni ko tur yàlla la waaye bu ñu codé la waaw yàlla ni ko tur bi soo ko indee fii bu ko làmmiñu ni tuddee malaayika bi la mu mënoon ca xay bi dootu ko mënati ndax day diminuer fonctionnalité am yonent bi delloo ko waaw yonent bi delloo ligne de communication bi message spirituel bi teewul ñëw na jàllale ko waaye dafa utiliser lumière am moom waaw dafa utiliser lumière waaw ndax boobu am na lu nekkoon ci moom te ñu bari xamuñu ko waaw yàlla bind na yonent bi nii mu taxaw comme un être humain waaye fekk na ci biir dënn moom yonent bi buulu lumière ma nga fa boo xam ni buulu lumière boobu bu ko jas boo rox yi ñépp danañu déggal yàlla waaw ñëpp danañu déggal yàlla yonent bi mu ñëwee ci message spirituel bi loolu la génne ci dënnam waaw génne ko par pouvoir mystique waaw génne ko par pouvoir mystique waaw moo tax Cheikh Tijani Chérif ni ma ñi nettali yonent bi na picc ba xare woon dënnam donte picc ba malaayika lañ mu ni jaaxle nañ ca waaye xamuñu yonent bi moom mën na xar dënnu boppam te bu boobaa dunduroog na picc ba defoon ndax picc ba na mu defoon ñëpp gis nañ ni malaayika ba bu mu génnee xol ba daf ko doon raxas waaye yonent bi mën na xar dënnu boppam te kenn du gis na mu ko xare waaw ma ni ko lu tax mu ni ma ndax xar na ko génne boolu lumière jaarale ci message spirituel bi waaw jaarale ci message spirituel bi yépp ci ligne de communication te gis nga buulu lumière boobu mu génne woon di jàllale euh, message spirituel bi boobu la ñu dem ba jamono ñu tuddee ko jawharatul kamal la perle de te boobu yonent bee nga ca Makka ak Médine di jàllale message spirituel demande demandé bu borom bi ni ko naka jox ci ligne de communication yi mu doon wax ak moom ba muy dem ca laylatul mi'raj ñu dem ba ni ko na jël raf-raf waaye borom bi ni ko danu ko kode turu yàlla bu nu kode la tuddul raf-raf turu yàlla la bu nu kode te bu ko làmmi ñu ni tuddee fonctionnalité am ci monde xay bu dafay wàññeeku waaw loolu boo miinul xay bu yow lay jaaxal waaye boo ko miinee du la jaaxal waaw xay bu am na être yoo xam ne li nuy tudd di ko zikr ci ñoom dong la mën yam waaw buñ ko indee fii làmmi ñu nit tudd ko rek la mënoon fële ca seen pouvoir spirituel ca espace intermédiaire ya dootuñu ko mënati waaw te raf-raf façon boobu la waaw su ko defee nag yonent bi bëgg jaaxle borom bi dee ko ni ko am na lu nekk sa dënn am na lu nekk sa xol te mooy sa boule de lumière mën nga ci jas bu bépp rox boo bëgg jas bu waaw ci mujjiza bi ko yàlla jox yonent bi xar dënnam moom xar dënni boppam ci bàtti rocc ci buul bi ca la ko tasaare ci pénc yi mu bëggoon yépp ñu jot ci message spirituel bi waaw mu tasaare ko ca pénc yi waaw tasaare ca pénc yi lumière bi di dox di dugg ci rox yi di dox di dugg ci rox yi ba ca soxla woon mu delloo si leneen la nga xam ni moom ci boppam la yam mu delloo si ko ci bopp waaw boobu lumière boobu kenn xamul turam waaw lumière boobu moo dox di dox di dox ba moom la ñu tuddee jawharatul kamal waaw moom la ñu jox Cheikh Tijani Chérif waaw moom la ñu jox Cheikh Tijani Chérif waaw te gis nga ni mu ko doon tasaare muy dugg ca seen rox xulafaawul arbaa yépp sedd nañ ni yonante bi botal na message spirituel bi ci ñoom waaw waaw ñoom sedd nañ ko waaw xamuloo loolu moo indi loolu moo indi soo demee ca xayb juróom-benneelu asamaan ca siège am wala bu ñu ñëwee ñoom ci malaanu wasifa ñoom xulafaawul arba loolu moo indi bu nuy jàng jawharatul kamal ñuy jël seen loxo di ko teg seen dënn waaw dañuy wane ni leer gi dundal na seen rox te boobu fekk na ñu ngi dund ñoom ca màkk ak médi fàttaliku booboo tax ñuy jël seen loxo di ko teg seen dënn dañ ko teg seen dënn rek comme c'est l'hymne de la lumière waaye jubluwuñ ci teg seen dënn seen rox lañ ci jublu waaw yëg-yëg la ñoom lu ñu def rek lu ñu def rek am na lu tax waaw waaye fekk na message spirituel bi noonu la yonent bi utilisé ba jàlle ko waaw mu des nag essence spirituelle waaw essence bi nag yàlla ni ko kooku ñi nga ñi ma jagle ñoo ciy jot waaw waaw mu ni ko kooku ñi ma jagle ñoo ciy jot mooy essence spirituelle mu ni ko ñi ma jagle rek ñoo ciy jot waaw yonent bi nag ni ko nan laay procédé waaw ni ko nan laay procédé yàlla ni ko ni ngay procédé mooy ni nga procédé woon rek waaw buul bi nga génne woon buul mu nga ci biiram waaw mu ni ko buulu lumière bi nga génne woon ci sa dënn mu ni ko waaw mu ni ko buulu lumière mi ngi ci biir buul boobu waaw da génne ñaar yi mu ni tasaare ko ci pénc yi yonent bi defaat moo mujjiza ba mu defoon ca la génne ñaar yi waaw bul bu orange ba ak bul bu weex waaw mu tasaare ko ca pénc yi ña yàlla defal jagle keroog lañ ca jot gis nga deuxième bul ba mu génne woon moom la jamono dox ba nu tuddee ko salaatul fàtte ñoom ñaar ñëpp participer nañu ci message bu yonent bi jawharatul kamal message spirituel salaatul fatiha essence spirituelle soo leen boolee ñoom ñaar moom la yonent bi defaree rox yi ca jamonoom waaye aussi moom la joxe ñi nga xam ni naan nañu ci wàllu jagle ci leeru Muhammad moo tax ñu mën ko xam moo tax ñi weddi ñaari salaatu yooyu yépp dañu àggul fu nitu yàlla yi àgg moo tax waaye buñ fa àggoon ba xam fu mu jóge dootu nu ko mën a weddi waaw dootu nu ko mën a weddi ndax dangay gis ni yonent bi yàlla séddale na ci moom ñetti message yooyu waaw message universel bi mooy alquran ñëpp ci alquran la ñu war a tënku waaw mooy message universel bi waaw message spirituel bi yonent bi ci moo ci zaam yàlla sant na ko ni ko leer mi ngi ci yow kon doo soxla ligne yi nga xam ni ligne de communication lañu yu nekk ci monde xëy kon génne leer gi ci yow nga defar ci kaw ci bëgg defar mu génne leer ga tas ka ca pénc yi ba la ca des mu denc ko jamono dox di dox di dox ba ndeke leer googu mu génne woon xëy bu gis ni mooy bi ñoo tuddee jawharatul kamal bi essence spirituelle bi ñëwee it yàlla ni ko may nañ la ci sa mu'jiza buul boobu buul mu ngi ci biiram waaw boo ko génnee rek tas ko ñi am jagle ñi am jagle daal di ci jot waaw mu tas ko ca ñi am jagle ñu jot ci jamono di dox di dox ba ndekki buulu lumière boobu moom la xëy bu tuddee salaatul fatih waaw looloo tax nag li nekkoon ci diggante ñaari buul yi te ñu tuddee ko la crème de la lumière du profet Mohammed paix salut sur ba mu ñëwee doon mbindeef muy Cheikh Tijani Chérif ñu jox ko ñaar moo nekkoon ci diggante ñaari buli c'est la crème de la lumière waaw moo tax axtaab yépp mu yéem leen waaw axtaab yépp mu yéem leen te yem axtaab yi yombul waaw yéem axtaab yi yombul waaw waaye fekk na axtaab yépp mu yéem leen waaw te ci cër boobu nag moo tax mu yéem leen ndax ñoom mësuñu woon xalaat ni yàlla dina sàkk leer goo xam ni c'est la crème de la lumière du prophète ba noppi boole ko ci bani aadam bàyyi ko muy dox ñu di ko xoolee yonent bi waaw boo demee ci xaqiqatu muhammadiya ñu ne la ahmad ak muhammad benn lañu waaw waaw c'est la crème de la lumière du prophète waaw mu ñëw nag indi représentation bu bu daan dox sax bu daan dox sax léeg-léeg daan na ci indi firnde waaye ñi miin firnde bi ñoo bariwul ndax daan na indi firnde ci ñaari kurus yi gàddu bi wekkoo bi ci baat bi waaw waaye defu ko woon rek ngir décoration waaw daf ko defoon ngir mystique waaw ko defoon ngir mystique waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif waaw daf ko defoon ngir mystique waaw ndax boobu espace intermédiaire yépp gisoon nañ ni seen sutura ñoom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa espace intermédiaire yëpp gisoon nañ waaw ñu ni benn sutura la ñu am mooy Muhammad waaw te Muhammad léegi nag lanoo tuddee crème lumière am tànn na ko mooy nun li ñuy wax ci baat yi nga xam ni moom lañ koy jàngale tuddee ko xatmiyaam waaw li ñuy tuddee xatmiyaam ñu ni tànn na crème lumière am te nun moom la ñuy jàngale sous forme de xatmiya nu ni crème lumière bi ñaari jagle yépp jox nañ ko ko waaw ñaari jagle yépp jox nañ ko ko jox nañ ko boolu lumière ba nga xam ni moo jàllale message spirituel bi jox nañ ko boolu leer bi nga xam ni moo jàllale essence spirituelle waaw su ko defee nag ñu ni mu jox ko nag ñi nga xam ni ñooy boroom jagle yi waaw loolu indi woon boo daan jël salaatul fatiha bu nu nangu mag ñi di la woo ci roq wax la ni bokk nga ci ñi yàlla jagle waaw waaw mag ñi dañ ko daan wax boo daan jël salaatul fatiha bu nu nangu mag ñi woo la ci roq ni la kat yow bokk nga ci ñi yàlla jagle waaw nga ni lu tax ñu ni ndax li nga téye ku yàlla jaglewul mënu mënu ko téye waaw su ko defee nag yonent bi moom ak wàllam yonent bi moom ak wàllam mu jàngal jullit yi benn leçon de vie bu am solo waaw te leson de vie bi mooy def leen wax ni gis nga li ngeen di tuddee dee li ngeen di tuddee dee ñu ni ko waaw mu ni bu leen ko jàppee jeexital jàppee leen ko tàmbali waaw waaw message bu am solo mu ni jullit yi gis fekk boobu jullit yépp a ngi foogoon ni moom dee daal mooy jeex jeexal nga yonent bi ni leen dee bu leen ko jàppee jeexital na ngeen ko jàppee tàmbali waaw nu ni ko nu ñuy def ba xam ko mu ni faw nu yar leen ci waaw mu ni faw nu yar leen ci waaw nu ni ko noo ci yare yonent bi ni leen nanu toog ab diir rek léegi ma yar leen ci waaw ñu toog waxul yonent bi waxul ñoom waxuñu ñuy xool yonent bi mu di leen xool ci bët waaw yàggul tuuti ñu gis lu mel ni ngelaw lu yëkkati poussière ci seen kanam te boobu ngelawul waaw ñu jug daldi ni yaa Muhammad lan moo xew yonent bi ni leen jaafar moo fi jaar léegi ànd ak ay mbokki nitu aljanaam ak ay malaayika waaw kooku mokkal nañ kooku mokkal nañ ñoom saxaaba yi mokkal nañu ah. ndax fekke nañu fa ñu reyee jaafar ñoom fekke nañu fa ñu daggee boppam fekke nañu fa ñu daggee loxo fekke nañu fa ñu daggee tànk yonent bi wax leen de du jeexital waaye tàmbali la ñu ni nuñ koy jànge mu toog ba yàgg rek poussière bi jóg mu ni leen jaafar jaar na fi léegi ak mbokk aljanaam yi ak malayika yi kooku daf leen doon jàngal ni leen gis nga jaafar mi ngeen defe ni jeexal na ba dee na fekk na jaafar moom mi ngi dund waaw parce que mu ni leen martyr yi muy shuhada yi mu ni ñoom du ñu dee daañu disparaître nag waaw mu ni daañu disparaître waaye yéen fi ngeen di yamale dee muy rekk bakkan bi rot na suul nañ ko denc nañ ko mu ni loolu mooy seen xalaat ñoom bu gën a suufe parce que gis nañ ni bés bu ñu leen dencee ni dee nañ keroog la seen dund bu neex di tàmbali waaw te loolu li ci yàlla def kenn xamul lu mu doon waaw gis nga am na benn malaayika bu nekk ci juróom-benneelu asamaan soo ko gisee forme rab bii forme rab bii nun nu tuddee mbëtt ci ñi xam mbëtt lan la mbëtt ñi dëkk ci àll bi xam nañ ko form rab boobu la malaayika bi yor waaye malaayika boobu na mu rëyee ëpp na waaw waaye forme bi la yor mooy rab bi ngeen tuddee fii mbëtt ñu dëkk ci àll bi xam nañ ko waaw te li gën a yéeme mooy boo demee ba gis ko dafa mel ni dañu ko jàpp dugal ko ci benn kaase waaye cage bi nag lala lay yéem mooy dañu tëj nday jooram tëj càmmooñam tëj kawam tëj suufam dugal ko ci biir ba noppi bàyyi bopp bi génn ci biti te malaayika la du mbëtt de waaye ñoo nuroo jëm waaw gis nga boo taxawee diir di ko xool dangay ngay jékki saa gis mu mu ŋaan gémmiñam tudd baatu allah daldi di burus dara burus benn buul noppeeti ab diir tuddati allah daal burusati beneen buul di ko topp di ko topp di ko topp ba ndekete gis nga buul yooyu muy brousse mooy air bi nekk ci tunnel yu rox yi di jaar di dem barza parce que tunnel yooyu amul air tunnel yooyu ngelaw du fa dugg gis nga tunnel yi ñu créé ndax dañu créé tunnel yoo xam ni directement juróomeelu asamaan lay fële créer tunnel yoo xam ni directement juróom-ñaareelu suuf lay fële yii dafa tàng yii dafa féex waaye benn amu ci ngelaw ndax dañ ko encastré benn amu ci ngelaw mi ngi mel ni tey nga jëloon benn ballon boo xam ni ballon baa ngi fi waaye tànk jëloo pompe def ci air ballon bi du gonflé noonu la tunnel yi mel tunnel yu xat sax ndax air nekku ci mu yàgg ma jaaxal ma ni waaw tunnel yi moom lu tax muy am ngelaw ba ngelaw li di aspirer rox yi ndax rox yi bu ñu génnee àdduna ñu ni rox bi dog na ngelaw moo koy aspire waaw te ngelaw loolu ak ngelaw lii nu nuy noyyi bokkul waaw ngelaw loolu ak ngelaw lii nuy noyyi bokkul waaw fu mu ne ñu bari dañu defe ni ngelaw li rek ngelaw la benn la moo nekk ci tunnel yi moo nekk barzak fekk bokkuñu ngelaw li nii fii ñu gis pour àdduna kese la malaayika boobu may xool rekk gis mu tudd allah génne benn buul buul bi di dem mu dalati tuuti tuddati allah génneeti beneen buul buul bi di dem ma topp buul yi topp buul yi ba gis nu dugg ci tunnel waaw ma di ko séentu buul yi ci tunnel bi te ñaari tunel yépp lay alimenté tunnel bi jëm juróom-ñaari suuf ak tunnel bi jëm juróomeelu asamaan yépp lay alimenté waaw may xool tunnel yi ba yàgg Cheikh Tijani Chérif ni ma kii loolu rek ay liggéeyam gis nga bi ko yàlla bindee ba léegi mu ni ma dañ ko defal lu mel ni cage bàyyi boppam génn ci biti ndax yàlla bëgg organiser noonu waaye mu ni li muy tudd ci Allah heure bu tunel yi manqué air rek moo tax ngay gis bu tuddee Allah mën na noppi ab diir tuddati ko bu tunnel yi manqué air rek mu tuddati Allah nga gisati air bi demati dugg ci tunnel yi daal di jàll te gis nga rox yi bu ñuy jaar ci tunnel yooyu bu dee roxu jullit bi mooy jaar ci tunnel yi jëm juróomeelu asamaan waaw malaayika bi bu ko roccee daf koy dugal ci biir tunnel bi rox bi lay dugal ci tunnel bi tunnel baa koy jàllale tunnel bi moo koy jàllale air bi ci ne tunnel bee koy jàllale di ko jàllale ba mu génn biir juróomeelu asamaan bu génnee biir juróomeelu asamaan foofu mooy barzaq ba ñoo tuddee aljana barzaqu aljana nit ñu baax waaw seen barzaq ba nga xam ne buñ ca nekkee dañuy mel ni ku nekk aljana mu nga ci juróomeelu asamaan waaw waaye bu dee nit ki narul texe tunnel bi nga xam ni day jàllale rooxam daf koy jàllale génn ko ca juróom-ñaari suuf mooy barzaqu nit ñu baaxul ña nga xam ni ñoom la ñuy wax seen barzaq mook safara ñooyam waaw su ko defee nag en fonction jëfu nit ki na mu mel su rox bi dee dox ci tunnel bi noonu la tunnel bi di mel léeg-léeg tunnel bi bu ko bu bi alimenté wul dafay xat dafay xat daal di mel ni élastique nga xam ne rox bi buy dem ci biir rox bi day mbëkk ci biir waaw mooy indi nit ki génn àdduna mu mel na ñu nga yóbbu roxam mu mel na mu mel na dañ ko fatt waaw su ko malaaka bi alimenté nag dafay romb nu mu ko neex benn obstacle dugatee waaw moo taxoon yonent bi waxoon roxu jullit bu dañ mi ngi mel ni rek moo gën a woyof ndox moo def ci mbuus mu ni di ko sotti waaye fekk gis nga malaayika boobu moo koy alimente waaw te baatu allah la koy alimenté bu ko tuddee air bi daal di dem ba ci biir tunnel bi mu gonfle ko waaw ki nekk fii ki nekk fii ñu ni génn na àdduna nit ñi nekk fa di jooy ak nit ñi nekk fa ak di tourné ak di yëngal fekk na moom dem na bu yàgg waaw moom entamé na voyage bu yàgg waaw waaw mu ngi ci biir tunnel yi di dem li ci des koor bi kese la li ci des koor bi kese la waaye fekk na entamé na voyage bu yàgg waaw su ko defee koor bi moo fi nekk bu dee ma nga jëm ca tunnelu paradis di day dem di dem ba génn juróomeelu asamaan waaw ba génn juróomeelu asamaan parce que rox moom mooy sens bi ci biir organisme doomu aadam waaw mooy sens bi ci biir organisme doomu aadama li ci des yëpp cadavre bi la su ko defee nag rox bi bu génnee ca tunnel ba accédé ca place jardin de luxe ba borom fa mu tëdd mbégte mi mu yëg mook yàlla rek ko ko xam waaye su rox bi duggee ci tunnel bi bu génnee juróom-ñaareelu suuf rek janoog xet boo xam ni ci wàllu tàngoor kenn mënu ko nattal waaw xet bi moo koy accueillir su ko defee nag fekk na xëy na nit ñaa ngay wàcce kaamil xëy na nit ñaa ngay ñaan xëy na nit ñaa ngi fay nekk di wax lu sotteeg lu sottiwul waaye fekk na moom li muy dund mi ngi koy dund fekk na moom li muy dund mi ngi koy dund lu jar di bàyyi xel waaw lu jar di bàyyi xel waaw ndax li yéeme mooy dañ koy jàllale ba noppi dañ koy jàllale ci tunnel bi ba noppi soo gay nag xaar jugement waaw waxuma jugement dernier de muy yowmal xiyam jugement am ca barzak laa wax dañuy jàllale ruux bi ci tunnel bi ba noppi bu génnee juróomeelu asamaan su agsee ñu ni nañ ko bàyyi nag mu dallu ñu xool jugement am lan la waaw su boobaa ay malaayika la ñuy yabal waaw ni leen dem leen ngeen taxaw ca dëj ba ngeen déglu seede yi waaw moo taxoon yonent bi di wax ni nit bu génnee àdduna boo xamee ci moom lu baax na ko wax ndax malaayika yi dañuy jël si ay seede mu ni boo xamee ci moom safaan na nga noppi waaye du tee nag malaayka yi xam nañ ko waaw su ko defee ñu dem déglu ji seede déglu ji seede ba seede jeex ñu xool jëfam ak lañ ko fa waxal na mu meloon ba mu jeex ñu ñëw nag ay wax ni mën nañ ko libéré waaw mën nañ ko libere ndax seede yu rafet la ñu jële foofu waaw waaye fekk na libération ba formalité kese waaw ndax ki xas ba jaar ci tunnel yi la génne juróomeelu asamaan leer na leen ni sa barzaq barzaqu aljanna la mais ki jaar ci tunnel ya la jëme juróom-ñaari suuf leer na la ni même seede yéen a jëli du baax waaw da koy xam waaw kooku da koy xam waaw kooku da koy xam parce que yooyu benn bu ca nekk dafa am lum lay wan su ko defee nag bu dee ki ñuy jaarale ca tunnel ya ko jëme juróom-ñaareelu suuf bu ñu ñëwee fii malaayika yi mën nañu déglu nit ñu wax lu ne waaw baax naat nii la mel ndax léegi moom ku génn àdduna rek baax nga waaw booy dund daal moom noo mel ci baax dañ naan baaxul waaye boo génnee àdduna moom ñu ni baax na waaw su ko defee ñu déglu nit ñi déglu nit ñi bu dee li ñuy wax dara amu ci malaayika yi bindal ñi koy wax bàkkaar waaw bindal ñi koy wax bàkkaar suñu demee wax borom bi ni ay naar fekk yuy sedde lañ fa fekk waaw su ko defee nag yow ñu waajal la sa bopp moo tax yonent bi ni ki génn àdduna boo xamee ci moom lu rafet waxal boo xamee ci moom lu ñaaw noppil waaye waxu la nga créer ko lu rafet waxu la ko waaw te léeg-léeg nga dégg ku ni comme génn na àdduna kay donte xamuñu ci moom dara danu ko waxal lu rafet ma ni léegi waxal ko lu rafet te xamoo ci dara te xamoo ci dara doy na waar te xamoo ci dara waaw te dëj yi lu ne nga fay dégg waaw waaw lu ne nga fay dégg waaw parce que dañu dem ba génne ko ci côté xaqiiqa delloo ko ci côté aada waaw am na bis y trois ans de cela foog naa côté deux mille dix huit la deux mille dix huit deux mille dix huit bi ñu waxee ni suba la tabaski fii ci senegal ma toog ba moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ni ma nag ma demal armeel bu ñoo tuddee armeelu Corniche marmiyal waa Ndar fii ñu bari xam nañ mu ni ma am na benn soxna suñu war a indi war ko suul si ay dix-huit cinq minutes na nga def le tout ba fekke romb waaw maanaam fekke buñ koy denc ma julli tàkkusaan rek bi ma jullee tàkkusaan daal di gaawantu waaw daal di gaawantu daal di génn ndax boobu fekk na ñi xam armeel bi may wax xam nañ ni buñ ne suba la tabaski doo am foo jaar ndax ay xar ndax dañ fay jaay xar daral la waaw ma gaawantu nekk ca yoon yu xat yaag di booxante suba la tabaski di dëkk baa ngi fees telal nit waaw di booxante ba agsi tout juste ay côté 18 heures mooy 10 ma dugg ci armeel yi taxaw taxaw taxaw ba 18 heures jot Cheikh Tidiane fee ñu ma wat ci biir armeel yi ni ma dama la yebal pour soxna si ñuy denc ndax ku baax la waaye nag di nga fi dégg lu la naqadi waaw man boobu maa ngi xalaat dégg fi lu ma naqadi ci néew boo xam ne xaw ma ko sax ak ay mbokkam waaw 18 heures 5 jot rek ma gis corbillard bi daal di taxaw ñu wàcc du nu sax ay nit ñu bare quelques personne lañ waaw xaw ma nag xëy na li ñu ne woon subal tabaski ñu bari amuñu jotu dem ci néew yi di suuli waxtu woowu ñu wàccee soxna si ànd ak moom ñëw ba ci bàmmeel bi ñu teg. ma dégg ki doon seede jóg ni kii sama yaay la ku baax la mu ni ba biig su guddi rek fay naa benn médecin mu jóge ba Dakar defal ko perfusion jox ko garab waaye gis nga li yàlla dogal ci moom wax wax wax waaw man ma taxaw rek maa ngi sol sama blouson xam naa ni soxna su baax la ndax Cheikh loolu la ñu fi yabal naka mu pare rek kenn jël kàddu ki jël kàddu ni man maay màggu kër gi waaw nii eh, soxna si doomam yi ñu baax lañu waaw jamono ju nekk dañ may may xaalis waaw dañ may may xaalis moo tax sax bërki démb bu nu ñëwee jàkk ji di wax ak man wax naa ni leen bu leen neexee sax bu leen jaamu yàlla ndax ni ngeen may may xaalis ak toppatoo seen waajur rek doy waaw ma dem bay bëgg ko wax yow mii li ngay wax ñeme nga yàlla ba yàgg ma ni waaw kon yebal ci dëju jàmbur fàttaliku li ma see waxoon ni ma di nga fi dégg loolu naq waaw waaye xuus naa ba jege néeg bi bëgg ko wax yow li nga wax ci diina nga ko teg wala ci téere nga ko teg bu ñu jaamu yàlla ndax dañ lay may xaalis te fonk nañu seen waajur loolu doy na jaamu yàlla ma xool ko góor ga di wax di wax di wax di wax ba gémmiñam foofu waaw ndekete dañ ko ngëbal xaalis bu kenn xamul lu mu toll waaw man nu ci soxna si rek ma génnaat xam ni moom fi indi waaw waaye fekk na boobu Cheikh Tijani avertir woon na ma parce que waxoon na ma di nga fa dégg loolu la naqari mu jàqaloon ma mais mësuma foog nii nit dina ñëw ba ci bàmmeel di fa wax loo xam ni même moom gëmu ko taxaw ni mooy magu kër gi xam nga dafa kontaan moo uf xale yi léegi te xale yi doon ub xaalis waaw mu ni moo tax sax bi ngeen ñëwee jàkka ja nee naa leen fu mu ne yéen bu la neexati sax bañ jaamu yàlla ndax fu mu ne da ngeen may jox xaalis te seen waajur yi da ngeen ko fonkoon te ku fonk waajuram bu ko neexee bañ jaamu yàlla ma ni leen waaw pour wax la ni kenn xamul yi xew ci dëj yi lan waaye fekk na Cheikh Tijani moom du bàyyi mukk njabootam waaw du bàyyi mukk njabootam te yàlla xam ne ni soxna sos mënuma la fu mu dëkk mënuma la wax fu mu dëkk mënuma la wax lu mu doon def xam naa ni daal li mu doon def neex na Cheikh Tidiane Chérif waaw ndax wax na ma demal fekke rob waaw ci bis boo xam ne ni yoon boobu xate kenn xamul na mu mel waaw ma taxaw mu jékki saa ñëw ni ma waaye nag di nga fi dégg loola naqadi de waaw ma defe ni lu nekk la ndekete boobu dafa doon bëgg wax daañu ñëw ba foofu waaye dekkilaat aada waaw loo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy insister ci ñoom jullit yi mu wax leen na ngeen fexe ba xam ni dee du jeexital na ngeen ko def tàmbali waaw mu ni na ko def tàmbali ñu ni ko nun koy jànge mu ni xaar leen tuuti ñu xaar tuuti mu ni jaafar romb na leen waaw jullit yi ko laaj yëpp jaafar rek ni ñi mu àndal ak nitu aljana yi nu mu demee yonent bi ni leen parce que shuhadaa u la te shuhadaa u yi du ñu dee mu ni shuhadaa la waaw mooy lanoo tuddee martyr waaw mu ni te ñoom te ñoom du ñu dee waaw ay shahid lañ waaw mu ni ñoom yàlla bokk na ca ëllëg yowmal xiyaam bu ñu taxawee ca ñi nga xam ni dañuy dalal seen xel ba noppi waaw yàlla defal na ko shahid yi waaw waaw yàlla defal na leen ko bu ñu taxawee yowmal xiyaam ñuy àtte yàlla day yebal ay malaayika ñu ñëw ni leen yéen da ngeen xam ni benn problème du ngeen ko am ci bis bi na ngeen xam ni ci jàmm ngeen di nekk nangeen xam ni seen procès ci jàmm lay mujj waaw loolu la leen malaayika yi di wax pour dalal seen xel waaw ndax ay shuhadaa lañ waaw te jaafar ñépp xam nañ ko ci fànn boobu waaw ku ci mel ni Hamza itam ñëpp xam nañ ko ci fànn boobu waaw parce que Hamza li ko dal ca Uhud wax naa ni su daloon nit fii ci réew mi kon dana dana dana am prétexte. ndax Hamza ñëwul rek di xeex ba ñàkk bakkanam yonent bi avertir na ko yonent bi avertir na Hamza wax ni ko bul xeex ndax boo xeexee ci ngay ñàkk sa bakkan waaye dafa ni ndaw bi demal ci yonent bi nga ni ko ma jox ndigal ma tàmbali waaw kooku bu doon fii la danga nga naan comme sëriñ bi avertir na ma gay wax na ma sama bopp rek te ndigal laa ci am daal di dem doom nga naan ndigal laa ci am waaw ndax dafa am ndigal yoo xam ni nit ci daf koy yàkkamti daf koy yàkkamti daf koy sax ñaan waaw yàlla dañ ma jox digal rek ni ma toogal su ko defee lu ñu toogal la ni bu la nee toogal kat du sotti te ñooñu kat ñooñu saxaaba yooyu mbooloom jullit yi nekk fii ëllëg ñoom lay ñaan wax ni ñoom lay dajal pour taxaw ak ñoom waaw ñoom ñuy sa nawle ëllëg waaw ma ni ku ñuy sa nawle de am nga nawle yu ko mot waaw ku ñuy sa nawle am nga nawle yu ko mot waaw ndax ñoom ñu mot nawle lañ ndax kenn ku ca nekk fa mu taxaw yàlla wane na ci moom teggin bu tollook ni mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe nañ ci seen lépp te desaluñu dara waaw joxe nañ ci seen lépp te desaluñu dara waaw te loolu kenn xamul dëgg-dëgg lan la waaw looloo tax yonent bi bu leen daan woo ñoom bi ko nitu Médine yi toppee yépp ni ko wax dëgg yàlla ndax boobu xam naa dañ doon bëgg dañ doon bëgg ñu wax ni euh, màkka ñoo xataloon yonent bi waaye Medine yaatal nan ko nitu Medine yi ñoo bëgg yonent bi ñu topp ko rek ndeysaan waaw yonent bi ku baax la nag mu toog ñu ñëw ni ko ah ñun de wax dëgg yàlla euh, lañ daan wax ak yow rek dalal bi ñu la dalaloon suñu kanam mësul changé ci yow waaw suñu façon nekki nag yow mësul changé waaw ba tey ji yàlla dogal diine toll nii foofu fekk na boobu diine ngi bari booloo ñu ni ko ba tey jii diine ju tollu nii ba nga décidé sax ni nañu delluwaat mag waaw ndax boobu yonent bee ngeeg mbooloo ni leen léegi nag mën nañu delluwaat màkk waaw ñoom ñépp taxaw waa Médine ñoo ci gis seen bopp waaw ni ko tey jii ba ngay ñëw seetal ni nga tubranke woon ba tey diine ji toll nii waaw yonent bi laaj leen benn baat ni leen ndax da ngeen ci gis seen bopp ndax da ngeen yaakaar yenn tax diine ji toll nii ñu xoolante seen biir mu ni bu leen ko xalaat mukk mu ni ko ndax bis bu ngeen ko xalaatee bis bu ngeen ko xalaatee yàq seen pas-pas waaw waaw mu ni ko bu leen ko xalaat mukk bu ngeen ko xalaatee rek yàq seen pas-pas waaw xam nga boobu la mu doon bëgg jàngale la mu doon bëgg jàngale mooy nit loo jëf-jëf lu baax bul gis sa bopp loo jëf-jëf lu baax bul gis sa bopp parce que nee na bis boo gisee sa bopp sa jëf ju baax ja commencé na yàqu yàgg yëgul waaw waaw loolu la leen bëggoon jàngal nitu Médine yi dégg ka waaye ñu dégg ka avec philosophie waaw dégg ka ba noppi nangu ko nag avec philosophie waaw parce que bu ñu ko nangu woon avec philosophie dafay mel ni ku liggéey ba sonn ba ba mbir yëpp taxaw ñu ñëw rek ni la ah yow kat def nga ci waaye nag taxaw mu taxaw waaw nga daal di gis sa bopp moo ñoom ñu dégg ko avec philosophie waaw xam ni buy am yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni xam ni buy am message moom mooy jàllale message bi. ñu daal di koy nangu waaw di koy nangu buñ ko bañ ko nangoo rek daal di noppal waaw bañ ko nangoo rek daal di noppalu moo tax Cheikh wax ni li mu jàng moom nee na ci mission yonent bi yépp nee na ñaar rek la ci jàng moom Cheikh Tijani benn bi mu ni yonent bi yàlla dogal na ci moom mënu fi woon jóge te jotalul discours bi nga xam ni moom la yàlla waxoon mu tenir ko muy message universel message spirituel bi ak essence spirituelle Cheikh nee na mënu fi woon jóge te jàllalewul ñett yooyu waaw beneen bi mu ni yonent bi ñëw na ci kaw suuf waaye xam na ni moom fii gisul ku ko fii jëriñ moom mooy jëriñ suuf waaw mais gisul ku ko fii jëriñ ma ni ko kañ la ko yëg mu ni mi ngi ko yëge bis bi yàlla waxee ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala bi cheikh nee na ma buñ la laajee yonent bi ban bis nga xam ni moom la gën a bëgg ci dundam nee na waxal bés boobu waaw mu ni ma yonent bi heure buñ la laajee ban bés la gën a bëgg ci dundam waxal mooy bés ba mu déggee inna allaha wa malaikatahu na ala nabi waaw li ci des nag formalité la yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim waaw ndax yàlla ki mu xas ba julli ci yow kooku defe naa ni même bu nit ñi noppi woon sax julli yàlla bi rek doy na waaw ndax ngërëm la bu jëm ci moom waaw julli yàlla ci yonent bi ngërëmal yàlla la bu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaye yemul ak sunu julli ñun waaw mën na nuroo sax nag waaye duñ leen àtte waaw duñ leen àtte bokkul julli nit mu jëmale ko ci yonent bi ak julli yàlla mu jëmale ko ci yonent bi mën na nañu nuroo ci waxin waaye duñu bokk àtte ñoom ñaar te loolu ca laylatul mi'raj la ko yonent bi njëkk dégg ba mu jëlee julli ya ndeysaan jël julli ya ba dajeeg soppeem yenent yàlla Moussa alayhi salaam waaw ba mu dajeeg soppeem yenent yàlla Moussa alayhi salaam jamono yële dafa am bis mu ñëw ca diwaanul xiraa séance bi ñu ngi waxtaan mu di ko xool ba yàgg moom Moussa bi séance bi tasee ñuy nuyant ma dem ba koy bëgg wax ni ko gis nga sunu réew sunu réew dama ko bëggoon wax sunu réew amoon na ku doy di mën tooñ ba ni daf lay toppandoo dafay xar géej xaw tuuti ma wax ko waaw te bu ma ko ko dina ko jaar waaw xalaat naa ba ni man te maa boole kii Moussa sax te yàgg ma ni Moussa tàlluka pour wax la nga ci lu leen xel fekk na boobu ñu ngi fi bàyyi riir bu kenn xamul lu mu doon waaw ma gis Moussa diwaanul xiraa ma xool ko rek sama xel dem ci la mu defoon ci géej ma dem ba bëgg ko wax suñu réew bari na tàppale léegi de waaw ma ni ko ndax ña ngay bàyyi suñu priorité di topp yu kenn xam waaye waaye ma xool Moussa ak charisme bi ci moom ak civilisé bi mu civilisé ma xam ne am na koo xam ni kenn du ko nettali ay ay tappale waaw waaw ndax Moussa ku civilisé la waaw waaw yàlla Moussa ku civilisé la waaw moom rek moom mooy yonent boo xam ni boo taxawee nag moom dix minute munoo taxaw moom dix minutes te laalul ay kawaram moom yent yàlla Moussa waaw munoo taxaw ak moom fukki minutes te jëlul ay kawaram bu wàccee fii delloowaat ci gannaaw. ngeen waxaat tuuti mu jëlati delluwaat ci gannaaw danga naan ni mu civilisé sax doo xam lan waaw comme kawar boo xam ni fu mu tollu mi ngi koy defar li ngi mel ni koo xam minute bu ne mu defar kolam waaw yeneen ti yàlla Moussa ci moom laa gisee loolu waaw doo taxaw 10 minutes te jëlul ay kawaram delloowaat toog ba yàgg jë wax ba yàgg jëlati ay kawaram euh, delloowaat waaw moo tax bis ma dem ni Cheikh Tijani Chérif moom gars yi dañ ni woon. Euh, làmmiñam dafa takk waaye moom moo gën leer làmmiñ Cheikh ni ma xam naa mission rek a taxoon yàlla takkal làmmiñ waaye loolu jeex na waaw Moussa buy tenir discours doo bëgg déplacer sa nopp ci déglu li muy wax ndax kàddu yu neex waaw ma ni Cheikh lu mu demee nii moom dañ ñu woon làmmiñam dafa takk waaw ba wax di mënul wax ba wax di boole leen kaa kaaroon Cheikh ni ma loolu yépp mission moo taxoon yàlla doxale ko noonu mu ni ma waaye bi mu ñëwee fii gis nga lépp dafa dañ waaw mu ni lépp dafa dañ moo tax soppe yonent bi sallallahu alayhi wa la moo tax bi yonent bi dajeeg moom mu wax ko julli yii julli yi ngay yóbbu sa xet àttanu ko waaw te wax na dëgg waaw wax na dëgg imagineel mu bàyyi woon ko mu indi juróom fukki julli waaw fu mu ne juróom ya sax balaa nit ñi du ko def dangay wax ba sonn bu indi woon juróom fukk nag waaw mu ni ko yii sa xeet àttanul waaw waxal borom bi na ko wàññi waaw yonent bi di dellu muy wax yonent bi di dellu ba mu des juróom même juróom yi waxoon na yonent bi sa xeet àttanu ko waxal borom bi na ko wàññi yonent bi naka nag rus naa di dellu ci borom bi di ko wax na wàññi juróom waaw waaye fekk na boobu yàlla moo ko organisé woon noonu waaw fekk na yàlla moo ko organisé woon noonu boobu nag ci laylatul mi'raj bi yonent bi jëlee loolu bay wàcc ca la dégg nag yàlla ni salli ala muhammadin alfaatihi li ma uxliq walxaatimi li ma sabaq naasiri bi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi aladim mu enregistré ko ci dëndam waaw bi mu ñëwee saxaaba yi laaj ko ni ko yàlla ban salaatu la jullee ci yow mu ni tekk ba yàgg mu ni leen xuulu allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim ila aqir jàngal leen salaatu ibrahim waaw mu jàngal leen salaatu ibrahim lu tax mu jàngal leen ko parce que loolu boolewu ko ci message spirituel bi ci message universel bi la ko boole te ñëpp ci jot waaw te xamoon na lii secret la te dafa laaj ndigal waaw xamoon na ni lii secret la te dafa laaj ndigal waaye gis nga moom mu jàllale ko noonu moom yonent bi waaw mu jàllale ko noonu jàllale ko noonu ba message ba mot te kat li gën a yéeme mooy message bi li muy rëy rëy li ko yàlla yan lu muy diis diis yonent yépp dañu ko apprécier ci mission waaw ba ci Isaa ibnu Maryam waaw ba ci Isaa ibnu Maryam waaw boo waxee Muhammad rek mu ni Muhammad dong la nu gis mu dox mission sans faute te ñëpp xam nañ ni Isa ibnu Mariam mission amoo fooy naan fët bi fii la waaw waaye gis nga moom noonu la nawloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni yonent bi dong moo dox mission Muhammad sans ku ci ne am na bis nga jaaxle waaw mu ni ku ci ne am na bis jaaxle nga jaaxle nga jaaxle nga ba jaaxle googu am lu mu laal ci sa nubuwa waaw parce que boo dee borom nubuwa jaaxle waru la boo dee borom nubuwa jaaxle waru la waaw waaw ndax lu tax kuy jaaxle mooy kiy xelal bopp kiy jaaxle mooy kiy xelal bopp mooy nga décider ni xaaral ma jaaxle ndax man teemaa def nang boo amee nubuwa loolu amul amul looy def lenn lu ca nekk ordre divin la boo xam ni dañ la koy sant ni exécuter nga daal di exécuter waaw moo tax su boobaa jaaxle mënu ci am waaye Isaa ibnu Maryam ni ma yonent yi kenn ku nekk am na bis nga dem ba jaaxle mu ni waaye loolu dalul yonent bi dalul muhammad waaw mu ni ndax li nu waxoon muhammad jaaxle naa xamatul nu muy def boobu fekk na muhammad ma ngay méditer waaw ndax c'est un éducateur waaw fekk na boobu muhammad mi ngi méditer ndax c'est un éducateur waaw moo tax mu doon méditer lu bare waaw mooy dalam dalam waaw waaw yonent bi ku dal la woon waaw bu ñu waxee rek mu dal mu dal déglu mu dal déglu bu dalee déglu déglu déglu déglu ba wax yu ba ñëw mu soogay jottali li ko yàlla waxloo te ci lay yam nag du ci yokk dara du ci wàññi dara waaw looloo tax yàlla dem ba wóolu ko dal di jël engagement wax ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa waaw loolu yàlla du ko waxal mukk n'importe qui waaw yàlla dem ba jël engagement wax ni lu yonent bi waxati maa ko wax loolu yàlla du ko waxal n'importe kooku du ko def mukk waaw ndax bu ko waxee ba noppi léegi nag kooku wax waxi boppam nag dañuy jël wax ji delloo ko ci yàlla waaw loo ko laaj rek mu dal waaw loo ko laaj mu dal ba buñ koy laaj histoire asaabul kaafi waaw juif yi xam nañu histoire bi ñu ñëw laaj ko ko waaw mu dal waaw mu dal dalam ba dal ba yàgg dal ba yàgg ba ñëpp ni ko comme xamoo ko comme xamoo ko léegi bu subaa dinañ fi dellusi mu ni waaw dellu si leen fi suba fekk na yàlla bëgg na ci jàngale waaw ñu ñëwati laajati laajati mu dalati ñu ni ko xamuloo ko bu subaa daañu dellu si bu muy ñetti yoon waaw ñu ni ko nag bu ñu dellu seetee moom li ñuy njëkk weddi mooy sa nekk yonent waaw yàlla ni ko wala taqulanna li indi inni fa'ilun zalika xadan ila an yasha allah waskur rabbaka iza nasita waaw mën nga dal nag waaye boo dalee dalee dalee sa xel yépp na nga ko tourné ci man waaw bu ci ndax su ma neexee rek la information yi di ñëw waaw mu ni ko su ma neexul information yëpp dañ koy bloqué waaw loolu yàlla moo ko mën waaw loolu yàlla moo ko mën ndax yàlla itam mooy suñu borom waaye ku am fulla la jamono ju nekk day wane ni day wane ni moom yàlla moo fi ne waaw waaw moo tax mag ñi nga daan dégg ñuy wax ni eh, yàlla paaka la kenn du ko jiitu ci mbar loolu seen léebu la waaw loolu léebu la dañuy wax ni yàlla jamono ju nekk lu ñu la tagg-tagg la muy bëgg rek mooy nga delloo ko lépp ci borom waaw muy bëgg rek mooy nga delloo lépp ci borom bi waaw lu nu wax rek nga ni ah yàlla di moo tax waaw yow de nii nga mel nangam nangam nga ni ah loolu yëpp rek ci teraanga gu yàlla di def waaw loolu la waxoon yonent bi ni ko soo ko jàngalee jullit yi jàngal nga leen dund gu estable waaw waaw mu ni ndax jullit yi tànk ñàkkuñu ma tànk ñàkk ñu ma man yàlla la nu bëgg daan ko am waaw waaye mu ni bés bu ñu demee ba ñàkk ma seen noon yi domine leen waaw waaw loolu dama ko analise ci at yi nu nekk ma ni seetal lii yëpp yonent bi waxoon na ko waaw yëpp yonent bi waxoon na ko bi newoon na jullit yi tànk ñàkk yàlla lu nu song daanu ko daan waaw waaw ndax yàllaa ko ko wax mu ni waaye bis bu ñu demee ba ñàkk yàlla dootuñu mën a daan dara seen noon ñoo leen di daan waaw ma xool ko ci côté occidentaux yi ni nu mel léegi ak islam ñaata milliards de musulmans ñaata pays musulmans ñoo nekk ci àdduna waaw waaye mi ngi mel ni benn pays musulman amul doole benn pays musulman existé wul musulman yi sax day mel ni bariwul waaw ndax lan ndax dañu dem ba ñàkk yàlla dañu dem ba ñàkk yàlla bu ñu ñàkkee yàlla nag yonent bi waxoon na subitement seen noon yi dañ leen di dominer waaw moo tax mu dénkoon ko sahaaba yi mu dénkoon leen ko ni leen fu ngeen toll na ngeen di bàyyi xel borom bi waaw na ngeen di bàyyi xel borom bi ndax yonent bi ku baax la waaw yonent bi bi mu làqoo ba léegi ci shahada bu sañoon bés bu nekk mu gidde jullit yi ci siraatal mustaqim dafay wax ba da gis ni sax dafa mel na koo xam ni bu amoon pouvoir ñu may ko ni ko dellu sil dana dellu si commencé waat mission te kat àggal na mission te benn fay amu ci mais mbaaxam moo tax waaw mbaaxam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moo tax xam na fu monde musulman bi toll xam na fu monde musulman bi toll moom yonent bi dafa am benn guddi benn guddi ma génn ay deux heures jaaruma ci tefes ci dex gi dama doon xuus ak sama tànk ci côté dex gi rek waaw di xuus di xool niveau d'eau bi fan la yamoon niveau ndox mi ni ngeen koy xamee comme bu marée haute bi jógee fii ni muy bare ndox mooy xuus tuuti boobu deux heures et quelques jot yàggul ma gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom mu ngi dox ci leer leer gi nag mi ngi tegu ci kaw ndox bi ñu nuyonte bi ñu nuyontee waxuma yaa ngi dox ci dex gi de dafa ni ma yaa ngi dox ci sirru maanaam yaa ngi dox ci secret kooku mag ñi xam nañu lu muy tekki secret ci diggante ñaari ndox lañ koy denc waaw moo tax ñaareel nga daan gis mag ñi dem ci palaasu ndox di fa dëkki waaw dañ daan wax ni secret ci diggante ñaari ndox lañ koy denc am na ñu ko firee marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun laa yabqiyaani am na ñu ko firee noonu ñu ni secret ci diggante ñaari ndox lañ koy denc mag ñi dañ daan dem di wuti côté ndox ñu di ci dëkk waaw ba ci mag ñi nga miin ñëpp ci salaatul fatiha nga xam ni miin nañ leen da nga daan gis dañuy dem ba côté maatam fa dex ga féete ñu ni ca cat ba waaw nga xam ni nga xam ni foo leen fekk rek bu nu génnee daj ndox mi ñoom jubluwuñ ci woon lii nga xam ni xëy na léegi moom la ci tubaab yi jublu mooy péex meeg yooyu ñoom dañu xam ni secret la waaw te ci ismu yi am na ismu laahil anzam yoo xam ni ci wetu ndox rek lañ koy zikre waaw ñoom dañ ko xamoon moo tax ñu ñu ñu daan dëkk place ndox waaw mu ni ma yaa ngi dox ci sirru xam naa li mu wax seen langage waaw waaye mu wax ma lu am solo mu ni ma monde musulman bi fi mu toll nii guider leen dana jafe lool. mu ni gidde leen dana jafe lool sax waaw donte nag mu ni ma sa mission la waaye mu ni ma gidde leen daal foo leen giddee benn ci benn tànk ñaanal leen ci beneen tànk waaw ndax ñaanal leen di jëriñ mais giddee leen dana jafe ma xam li mu wax ma xam li mu wax xam ni dafa bëgg wax ni société bi yàqu na yàqu na yàqu na ba bu fekkente ni danga jub sax boo moytuwul dootoo am kóllëre dootoo am xarit waaw loolu la bëgg wax waaw ma xam ni loolu la bëgg wax dafa bëgg wax ni société musulmane bi yàqu na ba toll ci boo nekkee nit ku jub boo moytuwul dootoo bari xarit wala dootoo bari kóllëre waaw waaw te foofu société musulmane bi toll na fa waaw mu ni ma boo leen guddee ci benn tànk ñaanal leen ci beneen tànk waaw mu ni lii nag la mag ñi junjoon bu yàgg waaw mag ñi junjoon nañ ko bu yàgg parce que mag ñi demoon nañ ba ci ñoom koo ci ñëw ni taalibee diw la ñu ni la yaa ngi yaa ngi yaa ngi wax lu la wóorul ñu ni lu tax ñu ni ndax diw amul taalibe te diw mi ñu lay wax amul taalibe kat boo moytul fukki junne nit ñu ngi topp ci gannaawam ni moom la ñuy nooyee waaw kooku daf leen daan jaaxal dangay ñëw ni diw de taalibe diw la ñu ni ko la wax diw am na taalibe nga ni fukki junne nit a ko topp ñu ni waaye kenn du ci taalibe ay wéttalam lañ ay wéttalam lañu parce que bu ñu waxee wàllu disciple pour ngay dolleeku ci sa kilifa moo tax boo dolleekul wul ci moom boo tuddee sa bopp ni taalibeem lay doo taalibeem waaw ñoom loolu lañ daan wax ñoom loolu lañ daan wax te ñoom ñëpp ku ci nekk ku ci nekk ni nga daan guddee sa ay kóllëre wala ni nga daan guddee sa ay soppe wala ni nga daan giddee sa ay wéttal moom ni yonent bi doon guddee sahaaba yi ñooyam te mooy yonent bi daf leen daan wax ni lu ñuy def nanu ko àndandoo def waaw mu ni lu ni def nañ ko àndandoo def waaw waaye gis nga rek mu ni ma yaa ngi dox ci sirru waaw yaa ngi dox ci secret waaw suufu tànk yi lumière baa ngay rayonné waaw lumière baa ngay rayone ci suufu tànk yi waaw ma ni ko maa ngi ciy dox waaw nuyu ko ndeysaan mu ni ma ah société musulmane bii de neexatuñu gudde de waaw xanaa ku leen giddee benn tànk ñaanal leen ci beneen tànk ma ni ko waaye lu nu mën a góorgóorlu góorgóorlu ko ndax yéen bi ngeen di ñëw la ngeen fi fekkoon moo gën a doy waar que xew léegi sax waaw ndax xëy na léegi nit dina def lu nekk donte lu nekk am na waaw waaye am na loo xam ni bu ko nit ki dee def dafay làqu te boobu bu ko nit ñi daan def ci diggu pénc mi lañ ko daan def waaw waaw fa fekkoon yépp ba taxoon pénc mi yàqu Cheikh Tijani Chérif dafa ni li li li li ci li ci li ci gënoon a doy mooy beew waaw nee na beew mu ni beew la fa fekkoon waaw moo tax ñoom njaboot bu nu am ñi ngi lay wutal yoon bu ñu lay jaarale pour sove la waaw waaw loolu commencé nañ ko yàgg na waaw njaboot bu ñu am ñi ngi lay wutal yoon bu ñu lay jaarale pour sove la waaw parce que xam nañ ni li des bareetul waaw li des bareetul te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ma dee benn baat dafa ma dee benn baat jour le 29 janvier ci guddi bi ma jógee ci cérémonie bi fii ci saal bi ba dellu bi ma ñëwee mu dee ma benn baat mu ni ma Isaa ibnu Mariam mu ni ma sama kóllëre la waaye sama nawle la te bëgguma buy dellusi si kuréel gi koy accueillir mu fekk ci naar fekk walla mu fekk ci ku gëmul dara le 29 janvier ci guddi bi ma jógee ci salle bi ma àggee loolu la ma njëkk wax dafa ni ma Isaa ibnu Mariam sama kóllëre la te sama nawle la itam kuréel gi koy accueillir jamono ju muy wàcc bëgguma mu fekk ci naar fekk bëgguma mu fekk ci koo xam ni gëmul daal waaw te xam na ni Isaa wàccagul léegi waaye man nekkuma fa naan ko incha daan ko organiser comme ni ko gars yi di waxee incha allah daan ko def nii ndax du ma wax mukk yonent bi luy dañ dama dem ci Cheikh Tijani Chérif ni ko dégg nga lu Mouhamad wax mu ni ma dégg naa ko ma ni ko kon sa kër sa kuréel ak goog tax benn nitu yàlla bi ñu defee wasifa tisbaar ba ba pare le lendemain 30 mu di ma ndokkeel ndokkeel ma pare ni ma boroom xel <laughs> ma xel <laughs> ni mu ni ma dégg naa mu ni ma dégg naa ci rumeur yi li nga waxanteeg Cheikh waaw moom it ku am ku am may la moom it ku am may la mu ni ma li nga ko wax rek loolu la waaw mag ñi delloo leen lu ñu moom waaw nii la ma ko waxee mu ni ma gis nga mag delloo leen lu ñu moom soo ko defee rek noppal waaw waaw ni ma ndax ñi sonn ci mission yëpp mooy dañu bëgg yi dañu bëgg yan seen bopp loo xam ne mënoon nañu ko yan keneen te fekk kooku jàppale leen ci te defuñu ko waaw ma ni ko man de tànk Cheikh a gi lu mu mën a yàllu rek laay yàllu waaw ma ni ko ndax xam naa ko waaw ñu waxtaan ci te kooku boroom may dëgg la te dund na ba génn àdduna te kenn xamu ko waaw parce que ci ci ci précarité rek la doon dund ci pauvreté sax la doon dund waaw waaw ci pauvreté la doon dund ci mbalit yi la daan tëdd ñu di ko may añ di ko may reer waaw ñëpp ni bopp xel mi neexul waaw ñëpp ni xel mi neexul di ko may añ di ko may reer waaw waaw naa ko nettali mbokk yi gàmm mës naa ko gane ji dem nuyu ji ko waaw mës naa ko gane ji dem nuyu ji ko waaw keroog bi ma agsee fi mu tëdd kat te kat fi mu tëdd <laughs> ñu ngi ca def benn baasu mbuus boo xam ni mbuus maa nga bëtt benn yooyu ñuy faral di takk pavillon yi pour yooyu moustiquaire yi moustiquaire baa nga xottee ko mu def ko ci suufu garabam tëdd waaw ma ñëw fekk mu lay lépp waaw mu lay ko ba mu set wecc ba munoo fa for bant waaw teg pom yoo xam ni boo ko doon jënd fii wóor na ma ni pomme yooyu doo ko fi gis waaw teg boisson yoo xam ni kenn xamul lu mu doon waaw ma ak si ni ko yi yan la mu ni ma ah yii de comme da ne woon da may nuyu si moo tax génne verre yi commencé teg mu xel li ñu xel li ñu toog commencé di lekk suñu pomme waaw di waxtaan waaw bu di ma nettali tarbiya salaatul fatiha bi mu daan def jour bu nekk waaw bu mu àggee lim ci gis ñuy waxtaan di waxtaan jékki saa rek mu ni ma jotaay bi yàqu waaw mu ni ko lu tax mu ni ma soxna saa ngi di ñëw ma ni ko kuy soxna si benn xale bu jigéen la buy toll ci ay 19 ans 18 ans waaw mu ni ma mooy kër gi may tibbal añ waaw ma ni ko léegi nag nooy def mu ni ma jaxase lépp jaxase lépp jaxase <laughs> jaxase yi jaxase pomme yi waaw lépp commencé di yëy pomme yi di tëfli waaw ma ko man nag nu may def man mu nga neutre rek toog waaw nga neutre rek ah neex nu ma neutre ndax baa ngi woon sama polisool takk benn sàpp kenn du ma foog ci dara ma toog rek xale bu jigéen bi dugg si man la jëkk xool ndax xam naa dafa naan kii lu mu fii def ci ki wérul ki waaw xool daal di tourné ni ko saa ñu ngi nii waaw ñu xool rek nu mu jaxasee ñam yi dal di teg ma sëgg ni patt rek mu jóg mu jox ko ñam bi xale bu jigéen bi taxaw di xool ndax man danaa lekk walla ma toog rek mu bëgg xale bu jigéen bi dem mu commencé tibb di tëf li di tibb di wiccax ba wiccaxaale ko ci sërëm xale bu jigéen bi ci bëtu daal di génn <laughs> am bi ci bëtu génn ba nu génnee mu ne ma xooli ceeb bi neexul sax mu defe ni dafa neex ñu doon lekk ko dàq ko waaw waaw te ñoo koy may añkat te nitu yàlla kaamil waaw waaw génn na àdduna ndeysaan waaw ma doon nettali loolu bi mu ñëwee la 30 ni ma borom xel ah, mu ne ma dégg naa rumeur yi nga doon wax ak Cheikh te dund na ba génn àdduna ci loolu la dundul waaw kenn xamul seen mbir ñoom lan na ba génn àdduna te ci loolu la doon dund kenn xamul ñoom seen mbir la waaw te nitu yàlla kaamil la waaw yàlla may ko lu ne waaw may ko pouvoir boo xam ne lu ne mën na ko waaye gis nga xool noonu mu def waaw xool noonu mu def parce que bëggul woon jamono jooju kenn ku yàq organisation spirituelle am waaw te dafa amoon dogu salaatul fatiha yoo xam ni daf ko daan def te dog yi daawuñu ko raw waaw mu ni bis bu koy nit ñi di xam dootul tal wér di te wax na dëkk waaw buñ ko xamoon du tal wér mun ko xamoon du tal wérd waaw waaye ma ni ko nag yi xale yu jigéen yi di la def nii du la yàq waaw du la yàq ñoom it du leen yàq waaw waaw mu ni ma loolu laa njëkk ñaan waaw mooy ciibatu bi ko ciibatoog ni ñu ko xeebee xamuñu ko ma ni ko loolu du la yàq yow ndax yaa ngi fi nga nekk te looloo la gën a du leen yàq waaw mu ni ma ndax seen teraanga biy jóge ci ñoom di ñëw ci man moo tax waaw waaw moo tax gis nga nit mënoo ko xam waaw te boo ko fa fekkee da ngay defe ni xelam neexul jarul sax jege waaw waaw ma nga tëdd ca suufu garab yi fa lay tëdd sangu waaw te bu fa sangoo ma nga ca xadaratul ilaahi di doxi soxlaa nga defe ni mu ngi foofu tëdd waaw te ñoom li ñuy ressentir ci moom yépp ci xeet ak na mu mel nangam nun du ñu gis loolu ci ma waaw gis loolu ci ma mu ni ma sama dund yépp nii laa ni nii nii laa koy doxale ndax dog bi ñu ma jox mënuma ko bàyyi te wax da dëgg nag xamoo wëli yi ku ci nekk dañ la sas ñu bari xamuñu lool waaw moo tax léeg-léeg nga gis ni toog rek garam bu mu naan maa ngi dem xadatu ilaahi wala xamul sax buntu xadata ba fu mu féete wëli yu ku ci nekk dañ la sas waaw léeg-léeg ñu garanti la ni la xadaratu ilaahi daa fa dem mais ak condition que bés bu ne 22000 salaatul fatih bu mu tardé bu tardee rek ñu arrêté la dootoo dem waaw ñii ñu jox leen 124000 ci ismu laahil azam ñii ñu jox leen dix-neuf mille ci turu yàlla yoo xam ni daanaka duñ ko sax bokk nekkul sax ci asmaullahi lhusna waaw wëlu yooyu nag ngay faral gis ñooy dem di beru pour bañ ku leen déranger waaw léeg-léeg ngay jaaxle lu tax diw beru bëggul nit ñi xam ko bëggul fekk lool la dafa am dog bu muy def bu ko nit ñi xamee dootu ko def nit ñi xamee dootu ko def dootu ko def te loolu dëgg la waaw ndax nit ñi dañu xéer nit ñi dañu xéer waaw yàlla moo leen defal lool nit ñi dañu xeer man daan naa génn daan naa génn suñu kër ci pikin dox dox dox ba ñëw ci Misra bii toog dox dox dox ba ñëw ci Medina Cheikh kii toog yore sama kurus yore sama kaamil te kenn du ma romb ni ma asalaamaaleykum waaw du wax ba ba may agsi ndax kenn du ma nuyu sax waaw damay yor sama kurus yor sama kaamil rek dox wér di sama wér waaye mënatuma ko fu mu ne boo génnoon a kurus balaa ngay àgg dig ba fukki nit dina la tàllal loxo ñaanal nangam nangam ku nekk tàllal la su ko defee loolu la nitu yàlla yi di bañ ñëw waaw moo tax dañuy préférer kenn du leen xam comme ça que li ñuy def seen jaamu yàlla dara du ci tar waaw te loolu yombul waaw te loolu yombul moo tax ay àll rek la ñuy di ci dëkk waaw ay àll kese la ñuy ci dëkk waaw ñu ci nekk ci monde arabe beeg ñëpp ay àll la ñuy di ci dëkk waaw kenn xamul seen mbir lan la waaw kenn xamul seen mbir lan la waaw te te mënoo leen àtte tam waaw mënoo leen àtte. gis nga Mouhamed Chafi Mouhamed Chafi bi ma demee bi ma demee Màkk defe naa am na sax benn foto bu ngeen gis ñu ànd ñun ñaar waaw moom Pakistan la ëpp lu muy nekk waaw waaye dana ñëw dana ñëw Médine waxuma Màkka de dana ñëw Médine benn ni nga koy gise benn yoon lu ma mës haj Màkk te dana passé Médine 6 mois Médine juróom benn weer ca masjidi rasul dana ko passé ci wetu yonent bi su paree jël bagage am dellu Pakistan kooku bu doon nit daf koy àtte dana ni ko yow jamono xaj fekk na la màkk lu tax jógewoo Medine dem màkk benn yoon la ma saaj màkk te at bu nekk dana séddale 6 mois yoo xam ni dana ko passé ca masjidil nabawi waaw Mouhamed Chafi waaw waaw te nitu yàlla la te nitu yàlla la waaye moom loolu mooy tarbiyam te kooku bu doon nitu charia rek mën nga ñëw nga ni ko yow kay yaa ngi Medine Medine ak màkk 450 euh, kilomètres kese la ci bis kon doo dem màkk xaj yi wala nangam tarbiyaam foofu la ne waaw parce que kenn ku nekk orienté nañ la ni la sa mission fii la waaw kenn ku nekk orienté nañ la ni la sa mission fii la mu nekk fa six waaw moo tax keroog bi ñuy waxtaan waxtaan bu gàtt la waxtaan matul sax cinq minutes waaw ndax boobu bëgguñu woon ñu bari comprendre li nuy wax lan la waaw matul sax juróomi minute man ak moom waaw suñu waxtaan mu ni ma juróom benn weer yi bu ñu la waxoon yonent bi ñaata ñaata fan lay nekk ci fii ci Médine da nga naan xanaa kay yonent bi nekkatul Médine ma ni ko sa 6 mois yi passé ñaata fan nga fi fekk yonent bi mu ni ma matul sa juróomi fan ñeenti fan la ak benn suba te passé na fa 6 mois ca masjidi Nabawi mu ni ma ñeenti fan laa yëg ni tey mi ngi ci xabru bi juróomeelu fan ba ma defee ni mooy jour ba nga xam ni fa lay yendu fa lay fanaan benn suba la fa am balaa 9 heures jóge na te xabru baa nga fa lépp nga fa. wax la ni am na loo xam ni représentation rek moo tax léeg-léeg nga dégg ku mer gis nga arab yi gis naa def nañu nangam daj nañu fee te yonent bi foofu la daan toog nangam ma waaw léegi est-ce que moo la wax ba léegi toogukaayam la waaw parce que nag yonent yi waxu ba yonent bi sax di sayidina Muhammad mais yonent yi dëndul ñuy tëdd si seen xabru kese waaw te defe naa loolu yonent bi jàngal na ko sax saxaaba yi ci jamono bu daan ñëw ni leen romb naa Ibrahim alayhi salaam maam la ci man waaye fu mu ne ma nga foofu di jaamu yàlla xëyit suba ñëw ni leen romb naa Yuusuf ma nga ca xabru ba di jaamu yàlla waaw xëyiti suba ñëw ni leen romb naa Moussa ma nga ci xabroom di jaamu yàlla ba benn bis Ababacar ni ko xanaa yonente yi ñoom dañu am droit jaamu yàlla ci seen xabru ca la ko ko jàngal nag mu ni ko yonente yi su leen neexee jaamu yàlla fekk génn nañu àdduna ñuy jaamu yàlla ci seen xabru waaw waaw kon ñoom amuñu amuñu amuñu temps wu rek tëdd waaw ñoom amuñu temps tëdd waaw te kenn ku ci ne dox nga mission boo xam ni kenn xamul lan kenn xamul lan waaw seetal mission yeneenti yàlla yeneen ti yàlla yusuf ñu kon ne la dix ans de prison waaw dix ans de prison waaw ci loo xam ni ñoo ko tuddee viol mais ay tappale la yoo kenn mënul nett waaw ñu ne la ci dix ans de prison waaw nga xam ni presque mission am yëpp mën nañ ci prison la ko passé waaw ndax bëggatuñu mu dem mu ngay jëriñ bëggatuñ ko génne bëggatuñ ko seetal léegi nag dañ ko fa bàyyi mu nekk firikatu gént gi firikatu gént waaw moo tax Muhammad ibnu Sirin am na ñu ko xam ci wàllu téere Muhammad ibnu Sirin waaw dama ko laaj ca xadaratu ilaahi ba dafay teew nitu yàlla la ma ni ko yow foo mënee firi gént ba tasaare ko mu ni ma bis dama dajeeg yenent yàlla Yuusuf mu ni ma tàllalal sa làmmiñ ma tàllal mu tëf li sama gémmiñ waaw mu ni ma keroog lépp luy gént xam naa ko waaw mu ni ma keroog lépp luy gént xam naa ko moo tax bis bi muy génn àdduna bis bi muy génn àdduna moom Mouhamad ibnu Sirin fekk na mu toog nii ak soxnaam muy reer waaw muy reer te gis nga nitu yàlla la waaye ku bari woon bor la la ndax amul woon de te gis naa ñi ngi commercialiser ay téeréem yi di ko jaay lu kenn xamul te bi muy génn àdduna sax bàyyi na fi ay bor Mouhamad ibnu Sirin waaw ku bari woon bor la waaw te nitu yàlla waaw jëlul woon bor nii dafa amul woon toog ak soxnaam mu defaral carrière muy reer nii rek benn mbokk ñëw ni ko dama bëggoon nga firil ma benn gént mu ni ko lan nga gént man de maa ngi reer mu ni ko dama gént mu ni ko gént gi yow la concerné moo tax mu ni woon naa ñëw wax la ko sax tax guddi na waaye comme yow la concerné mu ni naa la ko wax mu ni ko ci nan la mu ni ko dama gént benn sequ ganaar sequ ganaar bi ngi taxaw nii ma gis weer bi di dugg ma gis weer bi mel ni luy luy sow comme ni jant di sowe bi weer bi di sow sequ ganaar gee ngi taxaw sab ba noppi ma dégg mu ni Muhammad ibnu Sirin après ma yeew bi mu ko ko waxee mu daldi tegg loxoom ci reer bi daldi bàyyi ba soxna ci dem mu ni soxnaam xam nga kii lu mu wax mu ni ko kii de gént la la nettali mu ni ko nee juróom-ñaari fan ma dese ci kaw suuf waaw ku mënoon firi gént la mu ni ko nee na juróom-ñaari fan moo ma dese ci kaw suuf soxna si jaaxle ni ko nan nga ko xamee mu ni ko fileeg juróom-ñaari fan li ñuy tudd ñu naan weer bi dana xëy mu ni ko weer bi dana xëy seq boobu mu ni mu gis mu taxaw kooku noddu woote barzak la sama tuur bi mu tudd mooy wane ni man la du waaw nii la ko ko firile waaw noonu it la demee ñu teg ci juróom-ñaari fan ca la génne àdduna waaw waaw pour wax la ni am na ñu yàlla may fàttuwu ci loolu am na ñu yàlla may fatu ci ñu mën a firi gént waaw waaye gént moom la ci sëriñ Babacar waxoon loolu laa ci gëm nee na nitu yàlla piir moo ko mën a firi wala ku ñeme yàlla firi loolu lu tax mu ni li nga gis bi ngay nelaw kay nitu yàlla piir la mën a wax nu mu demee ki ñeme yàlla piir mu ni moo fekk kuy nelaw gis ay gisam ñëw ni ko nàngam rek mu ni ko nàngam ak nàngam la te moom nelawul loolu waaw waaw pour wax la nit koy firee léegi demewul noonu ni koy firee léegi demewul noonu da gis boo xaalis mooy nga am xaalis bu dee weccit bu dee xaw ma kayitu billet su ko defee nag boo géntee billet wala weccit rek nga defee ni xaalis ba ñëw la na du noonu nit ku nekk ak gént lu muy firi ci moom te loolu nit yàlla yi ñoo ko xam waaw fukki nit mën nañu bokk benn gént te duñu bokk tekk waaw ndax kenn ku nekk booy atti géntam da nga koy xool ci situation bi mu ne waaw ci situation bu mu ne da nga koy atte ci situation moo tax nitu yàlla yi ñoo ko xam waaw nitu yàlla yi ñoo ko xam soo ko defee nag ñoom ñoo la mën wax ni lii la wala la leen waaw Mouhamad Ibn Sirin ku ko mënoon la di nitu yàlla bokkoon ci 40 wali yi gënoon gradé ci jamono waaw te bi mu génn àdduna bàyyi na fi ay bor waaw bàyyi na fi ay bor ndax amul woon waaw gis nga am am ak wilaaya jotewuñu dara am am ak wilaaya jotewuñu dara waaw te léeg-léeg nga gis. léeg nga gis wolof tooñe nit ni moom de xanaa balaa muy jaay wilaay mu am lu mu lekk ba noppi <laughs> te jote wuju waaye gis nga wolof comme dafa mën a xaste léeg-léeg nga gis mu wax ko nit waaw waaw ñu addiw de kilifa lay jaay waaye bàyyi ba mu am lu mu lekk ba noppi rek te jote wuñu waaw waaw ndax yàlla lu ci ne moo koy nattoo nitam waaw lu ci ne moo koy nattoo nitam waaw xanaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kay moom nga xam ne ci barkeem la ñëpp di amee te moom moo gënoon sonn yonent bi moo gënoon sonn ñëpp bés bu Umar ñëwee ak xaalam ni ko li ma gis naq dina ma lool yonent bi ni ko lan nga gis ndax dañu commencé di di tooñ yàlla tooñ boo xam ni mënatul ci dara wala lana xew ci màgg Umar ni ko déedéet waxuma lool yëpp waaw yonent bi ni ko lan nga wax mu ni ko dama la gis nga tëdd ci basan bu xotteeku waaw te gis sa basan bi ngay tëdd xotteeku yéeféer yii di tooñ guddeeg bëccëg yàlla tëdd ci étage te mënuma digérer lool waaw yonent bi ni ko Umar da ngay jëndee nubuwa ak alal mu ni ko nuboo bu doon jaay alal am na njëgam Umar di ko déedéet mu ni ko ma nga noonu bàyyi leen nu tëdd seen étage te amul amuñu nubuwa nun nu tëdd sunu basan bu xottee ko ànd ak sunu nubuwa waaw ci Umar toog ci suuf delloo si xelam xam ni mbir yi lekk doxewul noonu waaw parce que yonent bi yarkat dëgg la woon yonent bi yarkat dëgg la woon ñi mu am ñëpp ci loolu la leen yéeme mooy ci yar bi mu leen di yar yar bi dem na ba ñëpp nangul ko ko xam nga nangul ko ko moo tax ca période am ay détracteur am lan noonu daan wax dañ daan wax boo demee ci Muhammad da nga koy nangul ñu ni mënuñu nangul Muhammad ñu ni déedéet boo demee ci moom bis bu la waaree bis bu la waaree dafa neex làmmiñ bu bu la waaree booy tëb di ko taf ci sa dënn ndax kontaan sax doo ko tey loolu lu ñu te boobu dañ ko nanguloon sagesse am waaw boobu dañ ko nanguloon sagesse am ndax sagesse bi mu doon doxe moo tax waaw parce que gis nga la ñu tuddee philosophie spirituelle mooy bu la yàlla dimbalee nga dem ba yàgg ba ba yàgg waa xayb ngeen bokk vision waaw bu la yàlla dimbalee ba yow ak waa xayb ngeen bokk vision côté boobu la ñu mënta wax nit ki ni que ni léegi nag mën nañ ni naan na ci philosophie spirituelle te wax yàgg waa xëy bu ngeen bokk vision yombul de waaw waaw yombul parce que lii nu foog du loolu waaw waaw lii nu foog du loolu waaw maanaam wax ni xëy bu doxe wax ni waa xëy nee ñu déedéet loolu taxul ngeen bokk vision waaw loolu taxul ngeen bokk vision bokk gis-gis waa xëy mooy dem ba sa élévation spirituelle nga mën ka seddeel sa bopp waaw mën a seddeel sa bopp sa élévation spirituelle mën ko seddeel sa bopp waaw na nga ko mën a seddeelee sa bopp mu ngi doore ci sa sellte waaw boo demee ba loo ñeme woon def ba nga sellagul woon ñemeetoo ko def commencé nga sell waaw mag ñi noonu lañu ko daan atte dañ ni boo demee ba la nga ñeme woon def bu jëkk ñemeetoo ko def sa sellte commencé na di seddewu waaw te bu seddewoo ci loolu la ñuy mën a tuddee tey jii la ñuy wax wàllu élévation spirituelle te élévation spirituelle nag yombul waaw yombul parce que dafa war a ànd ak yaqiin waaw élévation spirituelle yaqiin la war a ànd waaw waaw yaqiin nag yombul mooy certitude waaw mooy certitude mooy nit dem ba xam ni li muy jëf nit dem ba yëg ni li muy jëf lu yàlla gërëm la loolu la ñu tuddee certitude waaw certitude du lañ koy tuddi waaw dem ba dem ba mu leer li ngay jëf yàlla gërëm la ko waaye gis nga am na bis yonent bi sallallahu alayhi wa ubay ibnu kaabin xam nga ubay ibnu kaabin dafa amoon benn euh, relation étroite ak yonent bi ubay ibnu kaabin yàlla moo waxoon yonent bi ni ko demal ci ubay ibnu kaabin nga jàng alxuraan bi mu déglu la moom loolu ku mu jàngalul dara dootu la jàngal waaw yàlla moo wax yonent bi ni ko demal ci ubay ibnu kaabin nga jàng alxuraan mu déglu la waaw te alxuraan wàccul ci ubay ibnu kaabin ci yonent bi la wàcc waaw waaw loolu ku mu jàngalul dara dootu la jàngal léegi nag li jëm ci wàllu certitude yonent bi di ci waxtaan ak ubay ibnu kaabin mooy la ñoo tuddee yàqiin mu ni mu ni moom yonent bi ni ubay ibnu kaabin ni ko dama am yàqiin ci yow ni yàll gërëm na la waaw mu defe ne ubay ibnu kaabin dafay jóg wax ka jërëjëf muhammad wala dara ubay ibnu kaabin sëgg commencé jooy ndax li ko yonent bi wax ni ko dama am yaqin ni yàlla gërëm na la mu sëgg commencé jooy yonent bi di déglu rek dafa ni comme nii ñuy wax xàll jooy yi gën a tar rek waaw mu jooy jooy yu metti ci kanamu yonent bi yonent bi dem ba ci kerseem mu ragal nit ñi wax ni ñëw na moom ba ci ubay ibnu kaabin di ko jooyloo nii jooyu metti yi waaw jooy ba yëqal waaw yonent bi ko amoon teggin la mu dem ba ba am kerse sax nii nit ñi daañu wax ni mi ngi woon ci jàmmam jooyloo naa ko ba mu yëkk mu di ko déglu ba ubay ibnu kaabin pare yonent bi génn benn mouchoir ci poosam fompal koy rangooñam laaj ko lan ngay jooy su ma waxee ni ci yaqiin xam naa ni yàlla gërëm na la kay loolu yàlla moo ma ko waxlu te bu la yàlla gërëmee danga war a bëgg ubay ibnu kaabin ni ko dama mësoon a sonn ci jaamu yàlla léegi nag wax nga ma yàlla gërëm na ma lu ma doon def war naa ko doubler te sama yaram àttanu ko waaw moom lay jooy nii léegi sama yaram àttanul li ma war a def waaw waxul gërëm gi de waaw waxul gërëm gi de dafa ni ko fu mu waxul waxi gërëm gi dafa ne fu mu ne yaramam àttanul li mu war a def ndax li mu waroon def daf ko war a def ñaar léegi waaw léegi nag comme àttanu ko moom lay faje jooy yu metti yi ba yëq waaw seetal boobu boobu boobu philosophie waaw seetal boobu philosophie lu kenn xamul lan waaw yàlla gërëm na la nga jooy ba yëkkat ba yonent bi mujj am kerse ci ñu fekk ak Ubay ibnu Kaabin wax ni moo ko jooyloo nii jooy yu metti yi ñu pare mu jël mouchoir fompal kay rangoña waaw laaj ko ni ko su ma nee yàlla gërëm na la kay sa xel dafa war a dal mu ni ko moo tax may jooy jooyu metti ndax jaamu yàlla bi ma war a taxawee dès à présent sama yaram àttanu ko waaw te war naa ko def waaw léegi nag bu ma jooyee yàlla yërëm ma bu ma doolee tuuti xëy na kon mu yërëm ma ci lool waaw xoolal ma philosophie boobu waaw te am na ñoo xam ne boo nee yàlla gërëm na leen kese li ñuy njëkk def mooy wut matelas double lit bu mag daal seen clim daal di tëdd soo waxee nu ni yàlla gërëm na ma man sa man amatuma problème yi am problème <laughs> ubay ibnu kaabin am réflexe bu tollook mu xam ni bu la yàlla gërëmee danga ko war a delloo njukkal lu ëpp lum la gërëm waaw waaw te nee yaramam àttanutu ko waaw nee na yaramam àttanutu ko waaw mu sonn si waaw mu sonn si ndeysaan sonn ci jaamu yàlla waaw waaw moo tax nitu yàlla yi noonu lañ mel waaw loolu ñoom seen philosophie la waaw loolu buñ ko xasee ba yar ci yow nga nangu sonn ci jaamu yàlla defal nañ la lu ëpp solo ci sa dund waaw ndax lu jafe la nag waaw lu jafe la waaw xam nga mag ñi nee ñu mag ñi nee ñu magu sufiyanke yi ñoom ñiy yare dañu wax di nga dëkk ci àll nee ñu nga dëkk ci àll nekk ci place boo xam ni place la boo xam ni la fa ne ci lu nit mën a yittewoo barewul nga dund ci tumuraanke nee nañu nga jaamu yàlla daf lay yomb waaw ndax tumuraanke bee tax waaw waaye ñu wax ni nag xam nga lu jafe mooy nga dund ci loo xam ni mën nañ ko tuddee luxe ba noppi ñeme jàmm yàlla nee nañu loolu dafay jafe waaw te wax nañ dëgg waaw wax nañ dëgg wax nañ dëgg lu metti la moo tax fay yi du tollo waaw fay yi du tollo ki nekk ci àll tumrank di jaamu yàlla ak koo xam ni mi ngi nii lalam mi ngi nii climatiseur am a ngi nii bu ko neexoon léegi tëdd bu ko neexee sax nelaw ba fajar jóg wax ni dama doon jaamu yàlla te kenn du ko mën a weddi mu fanaane naafile ba fajar kooku seen fay du bokk waaw kooku seen fay du bokk mukk waaw ndax yàlla la muy fay moo tax yàlla ci situation bi nga ne ci situation boobu la lay àtte waaw moo tax nag ubay ibnu kaabin moom teel a wax yonent bi ni ko fu mu ne suma yàlla gërëmee war naa def lu ëpp lu ma daan def waaw mu ni ko nag te malheureusement sama yaram àttalu ko ndax nit léeg-léeg mu bëgg dara fekk yaramam àttanu ko bëgg dara fekk yaramam àttalu ko waaw waaw bu ko sa yaram àttanul nag nga xam rek li nga xam ni yàlla def na ko ci yow nga fexe def loolu te doo ci boole ngistal waaw te yamoog loolu waaw waaw yamoog loolu lu am solo la waaw waaw loolu dafa daan dal mag ñi loolu mag ñi yàgg na leen di dal waaw mag ñi yàgg na leen di dal ndax benn góor nee na benn mbokk ñëw na ci nit ni ko mag ñi ñu ci bari ci ñoom dañuy naafila kaamilu alquran guddi waaw te loolu Seydil Hadji Malick moo ci jiitu woon kaamilu alquran waaw jàng fatiha jàng sooratul baqara ba sóotu mariam jàng fatiha jàng sóotu mariam ba naasi waaw mu ni ko yar na ci mag ñu bare waaw waaye nee ñu benn mbokk dafa ni loolu mënul nekk xam na mag mu mu yar mu ni loolu lay naafila mu ni dina ko gëstu ji waaw bàyyi bi mag mi lal sijaadaam deram ca biti di julli mu dem làqatu ca sàkket ba di yër ndax noonu lay jàng mag mi jàng faate ci naafila bi sooratul baqara ci naafila bi ala imran ci naafila bi di jàng di jàng di jàng ba ca sóoratul maayida ka ko doon ka ko doon yër ci sóoratul maayida la nelawe fa mu tëdd mi ngi teg loxoom nelaw na saa rek dégg ñu naan asalaatu xayrun mina nawm waaw mu tëb dal di daw jàkka ja ba mu demee fekk fa mag ma waaw fa mag ma mag ma ma nga ca jàkka ja pare naafila ba ma nga toog ñu salaatu muy julli ñaari rakkaam waaye gis nga julli ñaari am julli suba waaw ba mu demee ba pare nag ba mu demee ba pare ca la ko mag ma woo nag ni ko ah bul yëddooti kuy julli da ngay fexe julli ni moom waaw mu nekk góor ga yëg na ma di te ma woon ca gannaaw sàkket man mi ni ko bul yëddooti kuy julli da ngay fexe julli ni moom wax da dëgg waaw mu ni ko ndax yëddu ji ndax nit a ngi naafila fexe jéem a naafila topp ci gannaaw moo ko gën waaw ndax li nga ciy nettali soo paree mu ni ko njëriñ bi bare waaye gis nga ñoom gis nga ñoom seen jamono ak façon lekk yi amoon ak volonté bi ñu amoon kenn mënu wax lan waaw kenn mënula wax lan waaw te léegi nit a ngi daj lu nekk ci euh, wàllu médecine moderne daj lu nekk ci wàllu comprimé naan lu nekk te boo naafilee ñaari rakka balaa min wi fekk gëmmentu nga ci da ngay bëgg taal waaw loolu kenn du xam lan la waaw loolu kenn du xam lan la waaye nun ñu nu am ñëpp dañ leen daan yar ci volonté bi waaw dañ leen daan wax volonté rek waaw volonté rek waaw jamono bi nuy liggéey zawiya bi dafa naa imam Pape Alioune bu dakaar waxoon na ko bi moo demee naa ni bu ngeen bëggee gis ay malaaka dem leen Medina Cheikh ñooñu duñu nit tax dañuy liggéey <laughs> te fekk volonté rek la waaw volonté rek la ndax dama leen daan wax ni yonent bi li mu daj ci xare ñi mu àndal ñoom ñu àndandoo moom daj ko ci xare ñun bu nu mënul daj ci diine sax lu néew kon ñun ëllëg war nañu xoolaat suñu bopp waaw waaw yonent bi li mu daj ci xare waaw nga xam ni dañuy woor dañuy woor weeru koor ba noppi di xare waaw te seen bakkan xëj na ci waaw li nu daj pour diina taxaw ma ni ñun bu nu mënul lu tuuti sax donte duñ leen dab mais ñu xaw rek jéem tuuti ci suñu volonté ma ni kon dana des waaw te loolu dëgg la waaw te loolu dëgg la waaw ndax yonent bi loo message boobu rek la ma sa véhiculé message universel message spirituel essence spirituelle waaw Mawlaana Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa ni bi mu ñëwee moom même message yi la jàllalewaat mais daf ko def sous forme de zikr waaw ma ni ko lu tax mu ni ma ndax ala bi zikrillaahi tatma'innul quluub waaw mu ni daf ko def sous forme de zikr waaw loolu moo indi lañoo ñoo tuddee wérd waaw moo indi la tuddee wérd waaw daf ko def sous forme de zikr gis nga wérd bi li muy jëriñ nit wérd bi li muy jëriñ nit salaatul fatiha bi ngay jàng lim lay jëriñ waaw laa ilaha illallahu bi ngay jàng lim lay jëriñ istixfaar bi ngay jàng lim lay jëriñ jawharatul kamal bi ngay jàng lim lay jëriñ moo tax mu ni moom daf ko def su forme de zikr waaw mais nee na même message yi la te wax na dëgg ndax Cheikh Tidiane message universel am moom la ñëpp séntu waaw message universel am la ñëpp séntu ki nga xam ni tuddee na boppam Tidiane ak ku dul Tidiane ku am beneen sëriñ yéen ñëpp yëg ngeen ci xay ba ni xat mi am na fa te yëg ngeen ni moom mooy xaatim bi moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani kon mooy message universel bi jàll na message universel bi ñi jël wérdi ñoo ko jagoo waaw message universel bi ñi jël wérdi ñoo ko jagoo waaw ñi jël wérdi ñoo ko jagoo waaw essence spirituelle bi ñi jël wérdi mu nangu leen ñoo xam ñoo xam ne mu mel